gi ba jàmm ngeen yendoo ñu ngi leen di nuyu gërëm leen cant bi ak euh, télévision Futur Média bég nañu Oustaz Modou Fall ak man dellu siwaat ak yéen ni ñu koy defee guddi ajuma bu jot tey nag tombé ak veille premier safar ñu ngi waaj a dugg euh, ci weer bu bees ba tax ñu ngi leen di euh, ndokkeel ak fu ngeen mënti nekk ñu ngi jëm 18 safar xam naa daañ ci waxtaan bu ca kanamee tuuti waaye nag bégati yaa saas ñu ngi lay nuyu di la ziar jërëjëf Alaaji Pape maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar maa ngi lay ndokkeel itam ci guddi gu tedd gii ñu nekk di ñaan yàlla borom bi subhanahu wa ta'ala lépp loo xam ne rek jaamu nañ ko ko moom yàlla yàlla nañu ko yàlla nangul ci darajay sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. nuyu mboolem kilifa diina yi nekk ci réew mi yëpp jiital ci nag xalifa bi sëriñ Babacar Sy Mansour mm-hmm. ñaanal itam sëriñ Muntaxa yàlla na ko yàlla dolli wér ñaanal njabootu Seydina Limaamu jël nuyoo bi teg ko ci xalifa bi waaye itam ñaanal njabootu Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani bu Kunta waa Ceneba ñoom ñëpp ñu ñaanal leen yàlla yàlla defal leen jàmm ñaanal président Youssou Ndour moom mi nga xam ne mooy njiital télévision Futurs Médias yàlla defal ko jàmm mm-hmm. waaye itam ñaanal président de la République yàlla defal ko jàmm mm-hmm. ñaanal opposition bi Alaaji Pape ñaan yàlla réew mi mm-hmm. yàlla na fi yàlla def jàmm ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam macha allah jërëjëf yaa Oustaz nañu balaa ñuy commentaire ci li xew bërki démb euh, di inauguration daara ji il faut ñu def bilan ñi ñëw ak ñi ñëwul man nag heureusement ba dama teel a dem installé lépp pare ñibbisi bàyyi gan yi dem fekki Oustaz Modou Fall mais d'abord dama leen di wax ni képp koo xam ne bëgg nga bëgg bëgg nga bokk ci jotaay bi comme d'habitude euh, Kia mu ngi leen di xaar ci ginnaaw ak hashtag bii di euh, midi plus nga xam ne ci ñaari version ngeen koy am euh, soit guddi àjjuma wala bëccëgu àjjuma mais guddi àjjuma bi en direct la donc lu ciy commentaire ak question Kia daf koy taataan ñu jébbal ko Oustaz Modou Fall bu ca kanamee tuuti yaa Oustaz vraiment àddina kontaan nañu ci li xew keroog. bi nag mooy. ñi ñëw ak ñi ñëwul ndax man heure bi bi ma fay jógee fekk na gan yi ñëwaguñu. ma mhm. bëggoon xam ndax président Macky Sall ñëw na <laughs> parce que dama foogoon ni mooy présider inauguration bi <laughs> Macky Sall ñëw na wala ñëwul. Euh, ñëwul nag ci jëmm. waaw mais loxoom ñëw na. macha allah. ñëwul ci jëmm. mais loxoom ñëw na loxoom ñëw na. defe naa loxo bu ñëw moo ëpp solo. <laughs> kon bind naa président Macky Sall parce que képp ku ñëwul wala képp ku nattul rek leneen leneen lu ngeen xewle ñun duñ ca dem. <laughs> loolu loolu de mi ngi mel ni nga. loolu moom xoola wax ju yàqu la <laughs> est-ce que Mariam fay saal ñëw na. chère te te te Pape kooku. kooku ñëwam nëbb na ñëpp nëbb na fukki ñëw. Pape ñëw na. équivalence fukki ñëw la ñëwee. Adja Mariam Faye Sall. Mhm. Pape ñu ngi ñaan yàlla ne ko yàlla sàmm. allahumma amiin allahumma amiin. ñëw na de. mais nag li ci li ci neex mooy euh, keroog defe naa da def diggante Kébémer ak Louga carrefouru lislaam mhm. ndax képp kuy kilifa rek wàcc nga fa ndax bëgg alxuraan. dëgg la alaaji Pape xam nga damay faral di wax ni. Mhm. ni ñu amee terrain Kébémer ba tabax ko daara. Mhm. noonu lañ ko amee Dakar. mais boo gisee ñu taamu Kébémer mhm. mooy suñu dëkk cosaan mhm. te damaa amoon yéene lépp lu may njëkk a ci réew mi fa laa koy def. ko Kébémer mhm. beneen bi ci des mooy Pape Kébémer du Dakar woote dakaar nit ñi ñëw yomb na mais boo xoolee koo gis Kébémer jàppal ni sa nit la parce que Pape Kébémer da ngay daw deux heures de temps da ngay sol essence mbaa gasoil da ngay fay péage daj ay coono ba agsi moo tax sunu bis boobu ci la ñuy jàppee nit ba yowmal xiyaam mm-hmm. képp koo xam ne teewoon nga fa mm-hmm. nga yëg ak nga ñàkk yëg beneen jàppin bu bees am na suñu diggante ak yow ndax damay dégg mag ñi ñuy faral di wax ni koo xeebal bisam rek daanaka euh, euh, euh, xeebal ko lu am solo ci ji ma ci am mooy képp koo mm-hmm. xam ne yëgaloon naa la te ñëwoo fexeel ba loo xewleeti bu ma ko yëgal xam ne du ma ñëw. Mhm. nga xëy na entre-temps di nga fàtte. non non pap <laughs> dama doon seetaan. film ay xewu fii ak cinq ans. déglu ay xew fii ak dix ans. wuy ma mën ngaa fàtte. damaa toog di seetaan vidéo bi di zoom nit ñi. <laughs> xool kanam di bind seen tur. mais xam naa bi ma seenee ci ginnaaw nag sa xol bi sedd na. <laughs> di nga zoomee ba seen ma noonu xoola ma xaw toogaale noonu. pap xam nga man kan moo ma jaaxal. ki ma lebal teraanga. lebal ma njëkk. kooku tënk na ma. macha waaye ki ma lebal ñàkk yëg koo mën a doon nag. koo mën a doon ci àddina. ma wax la sama bis amoo benn ngant nga bañ cee ñëw. noppee nga maa gis ci lépp looy am. ci àddina rek di wax nii ku amul ngant. ku ngant. parce que nag parce que parce que nag Pape nit. sëñ Abdoul Aziz Al Amin. daf nit kenn du ko xeebal ñett. kenn du ko xeebal bisam. kenn du ko xeebal sëriñam. Mhm. kenn du ko xeebal soxlaam. Mhm. ak jàngoroom. ak mhm. parce que ñett yi dafa rëy ci nit. moo tax ñi déplacé wu alaaji Pape. daw ay kilomètres. ñëw ba agsi Pape toog naa ci tànt bi ñu ne ma saisi jeex na ma luyee jiwaat. ma toogaat ñu fekkaat ma fa ni ma cinquante seize yi nga dolli jàpp ne doy na jeex na dolliwaatal. mais Pape ma dem ba man mi organiser aw ma fu ma toog ndax mbooloo dafa lay jaaxal que nit ñi loo leen lebal mm-hmm, mm-hmm. ndax seen mbaax ak seen yëg-yëg mm-hmm, alaaji Pape bis dana toll foo xam ne boo ñëwul billahi allazi laa ilaha illa huwa yow yaay yëg ni ñëwoo mais ka ko organiser moom yëgul ni ñëwoo ña ko organiser yëgul ni ñëw ñëwoo sama maanaam sa absence du feeñ man amul kenn kenn kenn daal laa xam ne moom ñëwul muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mu ngi fa woon ba nga fa woon daanaka bërëb bi bërëbam maanaam rek laa mën a xam ne moom gisuma ko mu toog ci siis mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te sax nag ma nga fa woon mhm. waaye kudul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. boo absenté yëguma ko mhm. illa huwa man du ma wax lu ma gëmul kon Pape dañuy sant bu baax ñi nga xam ni jël nañu seen temps tàmbalee ko ci buuba nduur mi nga xam ne tey mooy sunu kilifa ci télévision bi déplacé wu bàyyi liggéeyam alaaji Pape ñëw alaaji Pape procureur Ibrahima Ndoye mhm. amul jot mhm. jóge dakaar ñëw directeur AIBD mhm. Ablaye Dieye déplacé wu ñëw ministre madame Mbacke déplacé woo Dakar ñëw Kébémer alaaji Pape ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo mënta lim ndax boo tàmbalee day am ñoo fàtte cofeel googu nag am ci sunu diggante ak yëg-yëg boobu alaaji Pape man de li may ñaan yàlla mooy ku ma lebal teraanga ma dund ak kàttan ba fay la ko kon ñu ñëwoon ñëpp ñu ngi leen di sant président Youssou Ndour ñëwul waaye alaaji pap yónnee na bi ma xëyee laa jot téléphone ñu jox ma ngàntam mu xamal ma ni bis bi sama bis la ndax man lépp lu jëm ci alquran ku ma ci woo ma ñëw wallaahi dëgg la ni ma bis bi man maa naroon a ñëwal sama bopp mhm. waaye lii maa ko ci def te alaaji pap la Youssou Ndour def ca bis ba defar na bis ba Serigne Cheikh Tidiane si moo ni woon yu baax yi nañ koy wax. kon teraanga jooju Youssou Ndour def. ñu ngi koy ñaanal lu mu man ren bu dewee déwénee. yàlla na mën lu ko ëpp waaye Pape dafa am koo xam ne mënuñu koo bañ a cité ndax daf ñoo sagal. muy Serigne Moustapha bu Serigne Cheikh Tidiane si almaktoum. kooku sa xarit la. billaahi wal kitaabi. kooku du sa Serigne sa xarit la. billaahi wal kitaabi. Mm-hmm. du sa Serigne sa xarit Pape balaa sama xol bee féex ma tudd Serigne Moustapha bu Serigne Cheikh Tidiane nga ne ma sa xarit la. Mm-hmm. sa sëriñ de sa xarit la. dafa am leneen lu may yëg ci sama biir xol. Mhm. alaaji Pape. Mhm. te te te dogguma la sax euh, mënoon nga koo bëgg rek mu bëgg la noonu waaye moom xaritoo bi am ci sa diggante ak moom da koo dëggal fésal ko assumer ko ci ku toll ni moom ci réew mais Pape ki ñëpp di wër. ok ci ku toll ni moom ci réew mi. ku wax ak ku waxul ñëpp a mhm. bëgg a jaxasoo moom. ndax cër bi ko yàlla jox. man mu ñàkk solo mii bu ma boolee ci boppam. bëggal ma boppam alaaji papa yebal une forte délégation mu ñëw keroog Kébémer keroog Serigne Cheikh Tidiane saar mi nga xam ni mooy jarbaatam bi mu jëlee kàddu ci turam mu yebal ko keroog ku fa toog sa sedd na waaye dégg naa da nga yàkkamti gàmmu jot ba nga jàkkaarloowaat ak moom est-ce que course ba nee naa leen nee naa leen nee naa leen ren gàmmu Tiwaawan fa yàlla yóbboo incha allah course ba incha allah est-ce que du ma maanaam est-ce que du ma fanaani yóbbaale mat laa ca tànt ba garaaw <laughs> rek leen <laughs> rek parce que fi mu ne yàkkamti nga gàmmu jot ba nga jàkkaarloo ak sa xarit. Serigne Moustapha Sy. billaahi bu Serigne Cheikh Tidiane Sy Al mhm. ren kursu ba Pape mbaa du ma yóbbaale mat laa quatre heures du matin. tax nga assumé yow itam sa cofeel ci moom. parce que nit boo ko bëggee doo ci tricher. Mhm. li ma gëm mooy nit soo ko bëggee doo ci tricher. Mhm. Serigne Moustapha bu Serigne Cheikh Tidiane Sy Al man maa ko bëgg. moom su ko neexee bu ma bëgg. moom su ma bëggul woon bu ko neexee bu ma bëgg mais man bëgg naa ko mais ndokk ba ma bëggee liñ naan alxulu bu tatara xol yuy gisee mm-hmm. mm-hmm. suñu xol yi dafa daje mm-hmm. te mbëggeel gi kat pap daa am raison ndax nit soo ko bëggee mën nañ laa poser question ni la loo gis ci moom li ma gis ci Serigne Moustapha Sy bu Serigne Cheikh Tidiane Sy Al ba sopp ko mooy xam-xam d'abord bu làmbi xam-xam amoon bu Serigne Moustapha Sy bu Serigne Cheikh Tidiane si demee indi coupe bi ci lu amul commentaire dama la ni Sénégal bu ñu ne woon làmbi bi xam-xam daa jib ñu ne ku ñuy yebal ci réew mi mu représenté Sénégal bu ñu yebalee Serigne Moustapha Sy bu Serigne Cheikh Tidiane si Al mu indi raw gàddu gi fii teg ko fi kenn waxal kenn waxaalewul xam-xamam kenn waxaalewul éloquence am kenn waxaalewul dégg jamonoom ak cofeel gi mu am ci jeunesse bi ak cofeel gi mu am ci jeunesse bi alaaji Pape bëgg loolu jeunesse bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg jeunesse bi mhm. jafe mhm. waaw <laughs> jafe. jafe lool wallaahi. dafa tourné gis ko de. déedéet latewul. nit ñi dañ koy xool di ko gën a sopp. wallaahi. am na nañu dul xewi. du nu sàppi. te heure bu nu yeewee di nekk ci xolu nit ñi. charismatique mais loolu la bàyyam Serigne Cheikh Tidiane si almaktum waxoon Serigne Babacar. intellectuel teg ci. Yaxya Maal leen jiilan jiilaa. Mhm. sëñ Cheikh nee na sëñ Babacar si turam. Mhm. day màgg étape par étape génération par génération. Mhm. moo tax moom foog ñu beral ko cant ak ngërëm. alaaji Pape. ak képp koo xam ni Pape ji jël nga sa alal. def ko ci sunu bis bii. ndax yàllaa ngi dogal ci mbaaxam. ba bis bi dëkk ma dëkkmalee ba léegi alaaji pap mboolem lu jëm ci bis bi yàlla béggandil nañ ko bañ tegee ko à côté mhm, mhm, mhm. ku ñu ci jox ñu def ci ku ñu ci joxul it li nu yor mën naa defar bis bi waaye seen mbaax seen yëg-yëg seen cofeel fu ne délégation jóge fa alaaji pap waa l'amiral def délégation ñoom shérif ñoom Dia seen ñoom ñëpp alaaji Pape def délégation ñëw fekk si la sa nit ñi sa am di ñi nga xam ne yàllaa la boole nga am ak ñoom jàmm Iliman Lam sa xarit yëkkati alal ju bari def ci Abdoul Aziz Ale Ndiaye yëkkati alal ju bari def ci mu Ndiaye Cissé yëkkal yëkkati alal ju bari def ci alaaji Pape Makhtar Thian yëkkati alal ju bari Lamine Ndaw transfert ñoom ñëpp di ay nit ñu baax ñoo xam ni alaaji Pape teraanga la ñu séq ak ñoom soxna muuminatu kebe sa xarit sa yaayu bopp moom itam noonu soxna jee astu sare ca états nga xam ne tey moom lañ duppee yaayu daara ji mm-hmm. ñooñu ñëpp alaaji Pape nga xam ne tey boo doon lim dana am koo fàtte koo wërta fàtte yëkkati ay teraanga ak yëg-yëg mm-hmm. moo tax maa ngi ñaan daal luy yàq diggante. Mhm. yàlla bu mu jugee ci man jëm ci ñoom. Mhm. gërëm ñëpp alaaj Pape. Mhm. et li ci neex mooy euh, ñu bëree ngi laaj ndax Kébémer rek nga ko yemale waaye euh, yëg naa ni yaa ngi am projet gën koo yaatal ci gox boo dem fii ci Sénégal muy dakaar rek yeneen région yi fu ci nekk bëgg nga fa samp au moins benn daara. loolu laa waxoon keroog Pape bi ma jëlee parole. ma ni leen ni transporteur di toogee ni am naa nangami oto. man sama yéene ci Sénégal mooy gox bu ñu tudd ma ne am naa fa daara. Mhm. damaa tàmbalee Kébémer. Mhm. def daara Madinatu Rasul. Mhm. maa ngi sumb. ci kattanu yàlla beneen daara joo xam ne daara internat pour jigéen la spécial. incha te daara jooju Sayyidatuna Khadija laa ko tuddee. incha mi nga xam ni mooy aawo Sayyiduna Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. mais boobu nag particulièrement jigéen kese lay jël du jël góor. ñun yéene boobu lanu am dañu am yéene yi. former ay soldaari l'islam ci Sénégal former ay jàmbaari fàkk tëdd ci Sénégal fexe ba doomu jullit ñi ni ñuy taxawee alaaji pap di di di am ay lijaasa ay certificat lu ne ay bac lu ne ñu am ko di def ay graduation mais noonu la ñu bëggee alaaji pap doomu jullit yi ci réew mi yëpp mokkal alquran jàkk yi tasaaroo ci réew mi barabu jaamukaay yàlla yi tasaaroo daara yi bari mm-hmm. ndaw ñi tegu ci diine mm-hmm. am xam-xam. jàng seen lislaam ñun ci lii rek la ñuy kon yow da ngay toppandoo Seydi Hadj Malick. <laughs> mais moom mais. <laughs> mais toppatoo toppandoo kat nga. <laughs> déet safurlaa da ngay toppandoo Serigne Mansour si kon da ngaa bëgg a dégg Oustaz Modou Fall borom daara yi. mais borom daara yi de mais yow mën nga toppandoo wa ah. borom daara yi borom limousine bi. mais borom da nga cee teg ñaari weer yu ne nga sa nga nga changé oto loolu mënuma koo ñàkk bañ a wax. bi ma la séenee léegi. nga gaare sa oto bu bees bi li ma njëkk wax sama xel mooy <laughs> moom daal Serigne Mansour si rek lay topp <laughs> ndeke bëgg naa dégg borom daara yi waaye bëgg nga dégg borom oto yi <laughs> bëgguma la catu mais daal ci tànki Serigne Mansour si nga nekk borom daara yi. mais Pape Tiwaawoon dañoo amul dañoo xamul lu dul jàng ak jàngale. Mm-hmm. Mm-hmm. ak Xaaji Malick mm-hmm. ci jàngale la nekkoon. sëriñ Mansour borom daara ji mi nga xam ne sëtu Seydil Hadji Malick la jàngalekat la woon mhm. sëriñ suur moo daan wax ni man may borom daara ji mhm. maa toog ci daara ji di faram fàcce masala yi mhm. mayoon ko xam boo xam ne moom sëriñ Mansour borom daara ji daan na wax ni alaaji Paap ñett yii yàllaa ma ci jey muy ku ma bëgg nga am xam-xam nga am xam ku ma bëgg nga am alal nga am alal daan na wax ni man sëñ suur maa yor prise bi ku ma branché nga tàkk mais Pape boo demee ziar bi ñuy wax ziaru daara ji. Mhm. day am Tiwaawan. Mhm. mooy mag ñi sëñ Mansour jàngal. Mhm. da ngay gis mag mu bejjaaw ba weex tàll ñëw gaare otoom. ndax lan bis boobu la taalibe yi sëriñ Mansour jàngal ci loxo boppam di daje. nga xam ni fu nekk xam-xamam dafa faa ci réew mi daan naa faral di wax ni boo boo foroon lettre enveloppe ah. boo foroon lettre bind ci boroom daara ji. duñ ko yóbbul kenn ku dul sëñ Mansour. dëgg la boo foroon lettre. bind ci borom ruq bi. Mm-hmm. duñ ko yóbbul kenn ku dul Serigne Cheikh Tidiane si almaktum. wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi. loolu Pape cër la boo xam ne yàlla mm-hmm. moom moo leen ko defal. Mm-hmm. sëñ Mansour. xam-xamam dafa yaatu. sëñ Mansour éloquence am dafa yaatu. alaaji abdou bi muy woy sëñ Mansour borom daara ji li lay wan ni sëñ Mansour dafa am xam-xam xam nga alaaji abdou nitu yàlla bu toll ni moom du waxantu mais alaaji abdou bi muy woy sëñ Mansour borom daara ji xam nga lu mu ko wax da ko ni yaa siiba wayhi zamanihi bal xustahu ilman wa fahman duna ma dafa am ku tuddoon siiba way nekkoon ca Makka bari woon xam-xam siiba way amoon éloquence alaaji abdou di way sëñ Mansour borom daara ji naan ko yaa siiba wayhi zamanihi yow mi nga xam ne yaay siiba wayu jamono. Ah. ñi daan dégg siiba way ci xam-xam. siiba way dañ ko daan dégg ci xam-xamam. Ah. gisuñu ko. Ah. yow nag yaay siiba wayu jamono. d'accord d'accord ci sa xam-xam. ci sa éloquence. Mm-hmm. ci sa mën a jàngale mm. sëñ Mansour daan na toog ci jumaay sëriñ kër si ne man sëriñ Mansour borom daara ji mm-hmm. fii ma toog di firi xilaasu zahab bii nga xam ni sama maam maama ko bind mm-hmm. ba doj wala ca màkkatal mu karrama mm-hmm. amul ku fi yeewoo koo xam ne su ma gagoon man sëriñ Mansour mën nga maa gàgganti macha allah macha allah ndax li ci téere yi kenn rawuma ci waaye li ci gannaaw téere yi nag laaj ko Serigne Cheikh Tidiane si almaktum mhm. élève yàlla bi mhm. ki nga xam ni li muy wax jamono day dox jamono bu nekk di ko firi mhm. moo tax may faral di wax ni boo bañee sa jamono réer la del déglu Serigne Cheikh Tidiane si almaktum boo bëggee am fit loo dëgmal song ko bañ a am tiitukaay del déglu Serigne Cheikh Tidiane si almaktum boo bañee juum jëlal say conseil jël Serigne Cheikh Tidiane si almaktum def ko conseil numéro un. di déglu ay waxtaan di ko déglu rek. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu xale yi naan yow rek laay topp. Mm-hmm. ku bañ a juum del topp Serigne Cheikh Tidiane si almaktum. man leer ma ne Serigne Mansour si rek ngay ngay topp <laughs> borom daara yi <coughs> donc euh, dinañu euh, euh, tàmbali beneen projet bi di projet internat di daara joo xam ne ni jigéen ñi rek la ko nar a jagleel loolee bés buñ ca tollee dinañ leen ko communiquer mais ñu ngi gërëm képp koo xam ne ni jàpp nga keroog ci inauguration daara ja nag léegi programme mu rentrée école bi rentrée naka lañ koy waxee ci tubaab ñun rentrée rentrée des classes <laughs> xaw ma ndax da ngay xaar ba octobre wala rentrée de classes bi mat na yaaw saas jërëjëf alaaji Pape euh, mm-hmm. daare ji nag insha allahu rabbi mm-hmm. le 10 septembre bii ñu dëkkmal mm-hmm. ci la ñuy tàmbali ku bëgg indi sa doom ah le 10 septembre le ci la ñuy tàmbali ku bëgg indi sa doom indi ko ndax dañoo bëggoon ubbi far yàlla màggalu Touba gi dox ci diggante bi. Mm-hmm. te ku ne xam na ni télévision Futurs Médias. Mm-hmm. taxawaay bu rëy la am ci màggal gi. Mm-hmm. donc bëgguma nit indi doomam ci daara ji. di ko teg ci yeneeni loxo. dama bëgg ku déplacé wu ba indi sa doom. nga teg ko ci samay loxo. ma waxanteeg yow parce que doom wala euh, euh, doom nekkul objet bu ñuy dénkaane. da nga fa am bureau. si sa si garaaw nga de. <laughs> te kat nit ñi dañoo foogoon ni Italie foo rek nga nekkee woon ak jaay ak marchand ambulant ci place bi ndekete yow xam-xam nga jàngi woon <laughs> tout moment à tout moment na ngeen jàpp sama wax ji mën nañu xëy bis ne Oustaz Modou Fall le nouveau président de la République du Sénégal <laughs> yàlla mën na ko te su boobaa nag ambassadeur laay nekk. léegi nag du ma fi toog di gérer benn ministère. da nga may affecté Arabie Saoudite rek <laughs> wala dëkk bu ñu naan États-Unis mais en tout cas le 10 septembre. la ñuy ubbi ci la ñuy tàmbali ci la ñuy tàmbali programme yi. incha allah léegi maa ngi lay wax keroog ni la condition yi. Mhm. visite. visite maanaam weekend bi bi bi bi njëkk. ci weer ah, bi visite parents yi. waaw mhm. moom la ñuy ci la ñuy ku am sa doom ci nga koy visiter maanaam samedi bi njëkk ci weer yi wala dimanche bi. Mhm. ci ngay ñëw pour seet sa doom. keroog waxoon naa programme bi yëpp ni muy tëddee. mais numéro bi nga xam ne nag moom mooy numéro daara ji pour information nga xam ne loolu moo ko tax a jug mhm. du numéro boo xam ne da nga ciy woote naan damay laaj masala diine mhm. wala oustaz Modou Fall sama sëy bi daa yëngu numéro école bi la la daara ji kese daara ji kese même soo ma jotee man téléphone li nga may wax mooy waxu daara ji mhm. bu dul waxu daara ji du ma ci tontu 726 77 waaw vingt 726. 726. 23 23. 23 23. vingt 23 23. ok amul leneen lu ma ciy wax lu dul mbiri daara ji. Mm-hmm, mm-hmm. pour mu clair. Mm-hmm, léegi nag Pape. la la le 10 boobu incha allah ci lañ bëgg a tàmbali. le 10 septembre ci kattanu suñu borom ba noppi. ñaan yàlla it. yàlla defal ñu ci ndam. allahumma amiin allahumma amiin ndax dëkk bi nu ko def. dëkk bu nu fonk la. ñu profité ci itam jaajëfal. waa Kébémer yëpp. Mm-hmm. maire yi ba kilifa ya fa nekk. kilifa ya fa nekk. Mm-hmm. Mm-hmm. ñaanal leen yal yàlla defal leen jàmm. allahumma amin allahumma amin. bu ñu fa organiser bu ñu fa defee lu mel nii. xam ni sunu dëkk la. amuñu lu dul moom moo tax ñu def ko fa. ñu sant leen bu baax mboolem ku dëkk ca dëkk ba te déplacé wu nag te ñëwoon ci bis bi. ñaanal leen bu baax yàlla yàlla defal leen jàmm. allahumma amin macha allah. mu ngoog Mbaye Diouf of sa yoon nekku ci nee ma xanaa franco arabe la du franco arabe de alxuraan kese la ñu fay jàngale arabe 100 pour cent voilà <laughs> donc ñu ngi xaar commentaire yi oustaz ba tey sa cofeel ci euh, yonent bi waaye bëggoon naa nag tey nga jàngal ñu ci première partie bi euh, yonent bi digganteem ak euh, saxaaba yi mhm. ak nan lañu ñu bokkee woon hmm. xam nga saxaaba yi pap bari nanu mhm. mhm. mais dafa am ñeent ñu ci gën a siiw ñoom rek ngay dégg seen tur ñeenti saxaaba. abu bakar Omar Omar. Ousmane Ousmane. Aliou ak Aliou mën nga jàpp ni ñii kese la am ci ay saxaaba. Mhm. mais yonent bi saxaaba yi mu amoon dafa bari. Mhm. mais lan moo tax ñeent ñii gën ci siiw. Mhm. parce que ñeent ñii ay gorom lañ. Ah, ay gorom lañu ci daan denc ay doomam. waaw ah d'accord. ñu bari dañoo jàpp ni. Aboubacar Omar Ousmane Aliyun ñoom rek ñooy saxaaba yi mais en même temps dañu àndoon ak yonent bi rek parce que dañ koo gëm déedéet dañoo nekk goroom nga nu ñu nekkee mais mais mais yonent bi tam daan na jël ci seeni doom waaw moom laa lay ah, leeral donc donc rok ki muy rokkaa ci ngoro ci ngoro goro rek <laughs> moom daal voilà xola mhm. koy may wala mu may la tere kese loolu loolu loolu loolu day rataxal diggante gisoo Seydil Hadj Malick. Mhm. radiyallahu anhu. mais Maodo c'est autre chose. Mhm. Mhm. Pape. sama sëriñ boobu. Cheikh Seydil Hadj Malick. sama yaakaar boobu. Cheikh Seydil Hadj Malick. sama wasila boobu. Cheikh Seydil Hadj Malick. nga xam ne ci moom laay connecté woo Maodo. man connexion bi may am El Hadj Malick ma ko partagé. dégg naa mooy sa wifi. non Pape man bu Seydil Hadj malik daggoon sama connexion dootuma connecté mhm. man sama réseau direct ci câble Maodo. Mhm. kenn branché wu ma man ku dul El Hadj Malick. macha allah. connexion direct ci Seydil Hadj Malick falaa koy jëlee. El mhm. Hadj bi muy way yonent bi ak saxaaba yi. daf ni maa ngi bëgg a way ñoo xam ni ay gorom lan. nekk fa di tëb tëb rek tudd Aboubacar Omar Ousmane Alioune de. Ah, dafa njëkk a wax li ñu bokk. daf ni maa ngi tudd ay goroom waskur ashaara nabiyi li annahum xilaafatuhum baada nabiyi jamilu bokk la jamilu laay laay jamilu wala bu <laughs> dégg naa ko cooykat yi de jamilu laay laay jamilu <laughs> ba pend sekk moo mun a way ci moom laa ko njëkkee dégg donc jamilu googu mooy lan daf ni maa ngi tudd. Hmm. wëzkur. wëzkur. tuddal. ashaaran nabi yi. ay goroy sayduna muhammad. sallallahu alayhi wa sallam d'accord. li annahum ndaxte ñoom goro yooyu. muy Aboubacar Omar Ousmane Alioune nga ni waaw Maodo. Hmm. mu ni xilaafatuhum hmm. seen kuutaay. maanaam remplacé bi ñu remplacé yonent bi. baada nabi yu gannaaw bi yonent bi faatoo. jamilun dafa rafet. Hmm. léegi nag pap ñeenti saxaaba yii Aboubacar Omar Ousmane Aliyun hmm. ku ci nekk goro yonent bi nga. sallallahu alayhi wa sallam bangal sa baaraam Aboubacarin. Aboubacarin jar na ma yàgg ci sa diix gi ah <laughs> ngéwéle rek <laughs> man nga fi fekk bangal sa baaraam Aboubacarin ndax mën na ma yàgg ci sa diix di. bu la neexee <laughs> ayca Aboubacarin sa diix xam nga sa diix di pap dàkkantal la. Hmm. Ah. xam nga li sa diix. déedéet mooy ko dëggu ki. est-ce que. dafa dëggu woon bu ñu nee Aboubacrine foog ñu yokk ci as-siddiq. Ah, ku dëggu ki mooy ku dëggu ki d'accord. Aboubacrine. Mhm. li ko goroloo ak yonent bi. Mhm. mooy Aboubacrine mu jël doomam ji tudd Sayyidatuna Aïcha. Hmm. may ko yonent bi. d'accord xam nga woon ne Aïcha Aboubacrine mooy papaam. waaw yenn saa yi da ngay fàtte. <laughs> ba ñu ba tey ñu ngi jàngal yonent bi. ustaas yi dañoo waaraatee waaraatee waaraatee Pape An siire naa siire na loolu doo koo répété répété mais xel day fàttu topp àddina rek ak baalu Viviane bi moo tax da ngay fàtte yenn li yonent bi bokk ak saxaaba yi mais boo ñu ko fàttalee ñu jël ndax la répétition est pédagogique <laughs> fa zakir ah, ala kulli haal fa zakir fa zakir mos macha allah yaa ngi Bakrin moo jur sayyidatuna Aïcha hmm. may ko yonent bi. sallallahu xam nga ban âge la ko ko may. déedéet six ce que waaw. ñi noonu lañ daan doxale juróom benn di at. Mhm. la Aïcha am. Mhm. ñu fas digganteem ak yonent bi. sallallahu alayhi wa taxul ñu jébbal ko ko. déedéet dañ koo takk ba pare bàyyi ko ci kër gi. Mhm. mu toog ci kër gi ba am neuf ans. ñu door koo jébbal yonent bi. sallallahu mais Aboubacrin moomu. moo jël doomam Sayyidatuna Aïcha may ko Aboubacrin kon xanaa goro yonent bi la. dëgg la. gorom gorom yàlla. ñu ñëw ci ay Aïcha ñaareel bi. Seydina Omar. Mhm. yonent bi moo ko may doom. Mhm. Seydina Omar non moo ko may doomam bu jigéen bu tudd Hafsa. Hafsa. Mhm. dégg nga wax ne. Xafsa doomu Seydina Omar la. Omar yëkkati ko may ko yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. ci Ousmane. Seydina Ousmane. Seydina nag Pape daf cee am moom lu spécial. muy. yonent bi dafa am doom bu jigéen bu tudd Roqayatu. mu may ko Ousmane. moo ci gën a neexle kon <laughs> ndax teraanga teraanga du gën a rëy loolu yonent bi yëkkati jox la. ñu sëy tuuti ñoom ñaar. Uh-huh. roqee gaañu. aywa yonent bi ne ko bul bul am problème dese naa keneen ku tudd ummu kalsuum. kon sama turandoo yaay daa teel a gaañu. waaw moom lañu tuddee sama yaay. waaw yonent bi ne ko bul jaaxle. dese naa beneen jigéen bu tudd ummu kalsuum. Ah. bàyyil ma jox la ko. nga xam du ko gënoon a bëgg. yëkkatiwaat ummu kalsuum mayaat ko Seydina Ousmane. mais ummu kalsuum gaañu. mais loolu ségrégation la oustaz. parce que cofeel bi mu amoon. ci Seydina Ousmane. kay. xam nga lu tax. Mhm. yeneen bi Pape daf daan sóonu soonu mooy nii. Mhm. di waxtaan ak saxaaba yi. Mhm. ku ñëw. boo ko nuyoo mu fay la mais du dindi sóonu bi. mais bu déggee ni Seydina Ousmane a ngi ci buntu bi ne asalaamualeykum Seydina Mouhamed ne nii xola dafa ruwaat. ndax bëgg Ousmane. saxaaba yi ni ko ku nekk nuyoo na changé woon ni nga toogee. Ousmane képp nuyoo nga changé ni nga toogee lu ko waral. mu ne leen yàlla sunu borom xamal na ma ni moom yàlla. Mhm. dafa rus Seydina Ousmane. dégg naa malaaka yi sax dañ ko rusoon. ñëpp ko rus. yàlla daf daan yóbbante ci yonent bi ne ko neel Ousmane dama koo rus man yàlla. malaaka yi dañ koo rus. waaye fu ñu teg loolu. yonent bi ne parce que dafa sérieux woon moom Ousmane. Hmm, correct. waaw Seydina Ousmane dafa sérieux woon Pape. mel ni Pape Maguette Diakhaté waaw mais Pape Samba jamais de la vie ah. taga un peu. <laughs> <laughs> pab Mor tuuti tuuti <laughs> man zéro <laughs> toog un peu un peu. yaa ngi dégg dafa série woon correct. Ousmane dafa bari kersa. xoolal valeur bi ci kersa. dafa sérieux. xoolal valeur bi ci yar. bu jubee yonent bi yonent bi daf daan defaraat toogaayam. yonent bi ne ku yàlla rus. Hmm. malaaka yi rus la waaye waaye kon man Seyduna Muhammad xanaa war naa laa rus ku ci amati ku ci amati Ousmane rus ko alaaji pap yonent bi bu Seydina Ousmane di ñëw mu defaraat toogaayam mhm. may ko Roqaya mu gaañu mu dolli Umm Kalsum mu gaañu mhm. yonent bi woo ko ba mu ñëw ni ko Ousmane mhm. wóor na la ni yow deseetuma doom bu jigéen kon lii moo tax kay usmaan Ousmane ko am doole si oh arrête Viviane nee na nangul ko ko force la Sonko dafa bëri doole. yàlla may na ko doole. parce que parce que parce que turu Ousmane bi moo kawe. <laughs> man la bëgg bëggul beneen animateur bu dul man barki borom Touba mais <laughs> turu usmaan <laughs> yaa ngi fàttali ko lettre musulmane haj Ousmane yee bari doole Hadj Ousmane <laughs> te émission bi dafa dem bay nekk lettre musulmane rek nekk ambiance su diine ak pédagogie boo xam ni dafay jëriñ ndaw ñi ak mag ñi génération bu ne mën ci gis boppam mais si na Ousmane defe naa ni sunu borom sax da koo bereloon loxo. da ko koo rusoon yonent bi daf koo rus. Mhm. sallallahu alayhi wa sallam. ba pare am confiance ci moom. Mhm. Pape kilifa di ànd ak yow. Mhm. wóolu mhm. doo ko jay doo ko fen doo ko indil faux information. Mhm. loolu Seydina Ousmane nii la doon ànd ak yonent bi. Mhm. dégg nga wax. muy bi. dafa génn màkk. dem Madina. waa màkk génn gi yonent bi génn màkk neexu leen mm-hmm. ñu am lu luñ ko téyal mm-hmm. yonent bi ñëw ma Madina ne daa bëgg a umra ji mm-hmm. mais xam na ni bu duggee màkk tem waa màkk attaqué ko parce que génnam gi neexu leen parce que dafa bëri woon ay noon foofu ñoo ko bundu xatal ba mu génn te mooy borom màkk léegi nag yonent bi ni ni ma mën a def pour dugg màkk pour umra lenn rek mooy solution bi ñu ne ko luy solution bi mu ne waa màkk dañoo rus Ousmane naa bàyyi Ousmane mu dem négocier ji d'abord bàyyi ma ci àll bi bu demee buñ ko nee naa dugg mhm. ma dem dugg màkk ci barke Ousmane kon parce que dañ kaa rus Ousmane yàlla mayoon na ko kon gis nga ku ñu rus mhm. ak ku ñu wekk mhm. intervention boo ñaan yàlla dugal ci loxoom dëgg la de déggoo rus naa la ci rus naa diw ngir diw laa ciy rus diw laa ciy rus loolu daf fi yàgg yonente bi bi mu bëggee ñëw màkka umra mhm. te waa màkka ni ko doo fi dugg mhm. Ousmane la yebal ni ko demal nga négocier mhm. mais bi Ousmane déparé dugg ca dëkk ba alaaji Pape yéex a ñëw naafiq yi profité dawal ay information pour ñu loo ni yonente bi rey nañ Ousmane pour yonente bi mer dugg attaqué màkka ñu ñëw ni ko rey nañ Ousmane yonent bi ne leen duma ci basé wu de. est-ce que Ousmane mi ma xam. ci kersaam. <laughs> du deewee noonu Ousmane mi ma xam <laughs> ci wet giñ ko wek non kenn du ko rayee noonu. est-ce que. Pape yonent bi ne saxaaba yi. Mm-hmm. képp koo xam ne pare nga pour jaayanteeg man. Mm-hmm. ci lépp lu yàlla santaane ñu àndandoo defandoo ko ñun ñëpp. Mm-hmm. jëlal sa loxo bii xola jëlal sa loxo. nga teg ko fii. moom yonent bi mu tàllal loxoom. sallallahu alayhi wa sallam ñi ko gëm ñëpp te nar a jaayanteeg moom di indi seeni loxo. di indi seen loxo di teg. di indi seen loxo di teg. yonent bi ne loxo càmmoñ bii. Seydina Ousmane nekku fi waaye maa ko fi nekkal billahi allazi la ilaha illa huwa su fi nekkoon dana jaayante comme nekku fi sama loxo moo remplacé Ousmane xola dóor loxom moom yonent bi ne loxo ne sama loxo fekk duggagul màkka non duggagul ok mais dañu saxaaba yi nañu jaayante balaa ñoo dugg màkka ni kenn du war kenn mhm. ku nekk dugal loxom ni ko duma ma la wor xola mhm. mu indi loxo si loxo moom ci bi loxo càmmoñam mhm. ne loxo bi mhm. ci man la sax mhm. mais représenté wu ma Ousmane la représenté nekk ko fi waaye maa ko fi nekkal ndax gëm naa ne bu fi nekkoon kenn du ko fi jiitu kenn du war sa morom samaam alaaji Malik nii wa fi bayati ridwani <laughs> kaana karamatan yubayiu an hadha alhabibi wusulu Sidi Hadj Malik nee na yonent bi feeñal na njàmbaaru njàmbaarug Seydina Ousmane te booba Ousmane absenté na. waaye xam na ne bu fi Ousmane nekkoon kenn du ko njëkk a jaayante mu ram mu dugal loxoom remplacé ko loxo Ousmane. Ousmane négocié Alaaji Pap ba yonent bi dugg. Seydina Ousmane moomu nag yonent bi ñaari doom la ko may ñu faatu. mu ne ko bu ma desee woon doom. Roqaya ak Umu Kalsum. waaw su ma desee woon doom. mayaat la ko mais jeexal naa. waaw oh, mais bëggoon na Seydina Ousmane nag. billaahi wal kitaabi. ci yàlla. alaaji Pape mu des kan. Seydina Aliou kooku ba tey yonent bi moo ko may doomam. yonent bee ko may doomam. te doomam ji ko yonent bi may. Mhm. mooy doomam ji mu gënoon a sopp. muy Fatimatu bintu Rasul. mais mais mais dégg naa. Ah. ci Fatima challenge lañ ci tegoon. waaw dañ ci tegoon challenge. ndax mën nga ñu jàngal tuuti ci challenge boobu noonu pour ñiy seetaan comprendre loolu. Seydatuna Fatima dafa nekk jigéen. <laughs> ok nuroog Seyduna Muhammad kon rafet. Alaaji Pape Fatima boo ko séenee muy ñëw da ngay taxaw di ko xaar parce que yonent bi nga koy teg. ñoo nuroo nuñ daan doxee. xam nga yonent bi daawul waaxu. xam nga nu mu daan doxee. déedéet Alaaji Maalik ko bind. Hmm. bi takaffu in yamsil huwayna. Hmm. nee na Seyduna Muhammad da daan tenkam tenkami tenkam tenkam tenkam tenkam. seen naale wit noonu ngay doxee de. <laughs> yàkkamtiwoo woo générique bi day jàll ngay tenkam tenkami di ñëw ba tey yaa ngi toppandoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag sayyidatuna Fatima alaaji Pape saxaaba yi ñépp ko bëggoon mhm. ndax nag Pape doy na tiitar maay doo maay denc doomu yonent bi wallaahi mais li ci gën a yéeme alaaji Pape mhm. mooy saxaaba yi ñoom ñeenti saxaaba yi mhm. ñoo waxtaan ne nanu fexe ba bum ñu génn. Hmm. na ko kenn takk ci ñun. ok parce que dañ ko tegoon challenge. waaw. waaw. Seydina Omar lañ yebal ni ko demal nga wax ko. Hmm. su nangoo nga takk ko. Hmm. Seydina Omar ñëw. seet si naa Fatima. wax ko soxlaam. Fatima laaj ay xaritam ñu ne ko bu ci dugg dalay rey dof la. Ah waaw. <laughs> xel ci ruube rek xam na ay xaritu ndakaar waa waa Dakar la. ñooñu moom ñooñu waa Dakar lañu. moo tax ñu naan kuy dox ngoro boo bëggee mu nooy dangay njëkk jënd xarit yi parce que koo gis am na xaritu yàqkat. boo xam ni moom bu salteelee mu salte. moo tax gisoo xale jigéen ñi balaa ñuy dugg dañuy xaritoog xaritu waa ji. dañuy maye ay piis man ñi ma tàggool ñu benn daan may sama xarit ay tusi <laughs> euh, ay voile <laughs> ak ay brodé ak la de xale yu jigéen ñi boobu la doxal balaa ñoo dugg xaritu xaritu waa ji léegi ah. léegi nag léegi nag Fatima moom dafa laaj ay xaritam lu ngeen xam ci Seydina Omar ñëpp ni ko dof la da lay rey. Uh-huh. mais El Hadj saxaaba yi ku ñëw wax sa soxla ba àggal Fatima rejeté la. parce que dégg naa dèjà moo nekkoon préféré yonent bi. da koo bëggoon. est-ce que est-ce que. cofeel gi yonent bi am ci. sallallahu alayhi wa sallam Fatima kenn mënu laa wax nu mu toll. Mm-hmm. mais Pape cofeel bu cofeel gu dem ba bi ngay génn àddina. Fatima daa laaj yonent bi ni ko mbaa dooma jiitoo barzaq yàgg da ko laaj papaam billaahi wal kitaab yàlla doom ju jigéen ju tiim baayam naan ko mbaa dooma jiitoo barzaq lu yàgg papa wax ma ñaata fan nga may jiitoo wala ñaata weer nga may jiitoo wala ñaata at su baree ma xam yonent bi ne tekk ba mu yàgg mu ne ko yàlla nee na six mois laa lay rawee Fatima di ree ndax dafa yàgg. waaw dafa dafa gàtt. pour moom yonent bi ay at la koy rawee. ah mu kontaan. mu ne ko six mois laa lay rawee mu bëgg di ree parce que nee na bëggul baayam dem bàyyi ko ci àddina bi mu fi yàgg. bëgguma nga dem bàyyi ma fi. papa comme six mois nga may rawee alhamdulilah. Sayyidatuna Fatima moomu nag Alaaji Paap. Mhm. nga xam ne prince la woon. Mhm. ndax presse mi ngi yem ci doomu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. alaaji Pape Fatima. mais presse bu jigéen princesse lañ koy woowee ci français <laughs> jàngal nga bañ presse bu jigéen mooy princesse <laughs> te moo nekkoon préféré Seydina Muhammad da koo bëggoon. Mhm. am ci moom cofeel mhm. amul ci moom sago. moom mhm. Seydatuna Fatima. mais li gën a yéeme Pape. muy mooy saydatuna Fatima toog ñëpp dem nañ mu rejeté leen ñu ne gars yi Seydina Alioune moo des nañ ko wax mu dem dernier sens dernier penalty yi dugal gagné waaw mooy Seydina Alioune moom mujjee dem waaw kon ñoom dañ ko organisé ñëpp lañ dàq <laughs> ñu ne ko kon organisation yàgg na ci at. yàgg na ci réew mi dëgg la de eh, dëgg la de. teg stratégie. Ah ñu ngi ci Kia moom la ñuy stratégie nii <laughs> man yow ak Pape Samba Thiam <laughs> organisation yàgg ci àddina ah. alaaji Pape. Seydina Alioune moo mujjee dem. Seydina Alioune moo mujjee dem. Hmm. te laataa Seydina Alioune di dem ñi dem ñëpp. Hmm. dañ leen ni wan leen ma seen numéro doq. wallaahi ñu dëpp. loolu Youssou Ndour ne woon su la nee noo nga yoxosu hmm. bu la nee wii xaw ma lan. mais lu tax mel ni ku xamul naan Youssou Ndour te xam ni Mbaye ko wax ci wayu Youssou. waaye Youssou Ndour. non non def nii xam nga genre oustaz nga bu xamul way yeeg affaire yooyu naan Youssou Ndour mais du Youssou. Mbaye ko wax mais wayu Youssou mais ko wax. kan moo ne mbëggeel dina feeñ ci xoolante foofu demal. kan moo ne bu la xaw ma lan nga sa dox yaa ngi may perturbé <laughs> ko wax ci wayu Youssou Ndour <laughs> bu la nee wii nga door pooj bu la nee xaw ma lan nga patine bu la kii nga. am na moo ko wax. waaw Youssou Ndour a ko wax ok. moo ne. bul yóbbante wax ko sa mbëggeel. wax ko sa wax ko ko sa yóbbante sa mbëggeel je plus. boo ko xaw boo ko. man taay bambara yi laay déglu. nga la wax ko ko. Ah, nga la wax boo ko ko waxul du ko xam. <laughs> di nga wax de tey bu soobee yàlla. li la Youssou jox yëpp ci daara ji di nga miin ay woyam di ñu ko expliquer ala kulli àll. nee wii nga toog bu la noonu nga yoxos voilà. Fatima nag. dinga ko wax de. Fa lan la ci teg boo ko ko waxul du ko xam. ana lay xaar wax ko ko. voilà. yow takkal sa fit. waaw. waaw tegal ma ko tuuti. yaa ngi dégg Pape. merci Pape Samba. yaa yaa ngi dégg Pape. baax na yaa ngi baax na dafa xaraam li ngay def nii xaraam na ci faaxal. maanaam texte bi woon. Mhm, mhm, mhm. takkal sa fit wax ko ko. Ah, Jimi mbayee ko xalam. <laughs> mais li ci Jimi mbay def yëpp dafa xaraam. bu la nee wii texte a important. texte bi laa soxla voilà texte nga nga toog bu la nee non nga yoxu. nga yoxu waaw léegi nag Seydatuna Seydatuna faatima ñi ñëw. da ne non. Ah. ñu dem ñoom ñëpp dem wokk seen doq yoxusu léegi nag Seydina Alioune moom ñëw. Ah, ki sama àq da koy dal <laughs> émission boo xam ne dama koy jooy ba fin <laughs> musuma gis lii. <laughs> mais Pape li gën a yéeme xam nga lan la. Uh-huh. ñi nu dàq. Uh-huh. ñoo ëpp xaalis ki ñu accepté. Hmm. ñoom ñoo ëpp moyen. dégg nga wax. Uh-huh. na Alioune moom bi mu ñëwee. proposé mbëggeelam Seydatuna Fatima. Seydatuna Fatima dafa mel ni ku yàkkamti woon a gis Seydina Alioune. Alioune dafa wax ay waxam. wax projet am. wax yéene bi mu am ci moom. daanee lëgul Fatima ni ko d'accord naa mille pour cent. te moo gën a dàq ñëpp moo gën a ñàkk nag ci saxaaba yi maanaam dafa meloon ni dukkure kii du dukkure Fatima d'accord ak ni Fatima meloon barki yonent bi parce que na ma yàlla baal euh, ci àddina jigéen dàqul Fatima ñun li nu miin mooy dàq ku néew doole fat ku am teraanga looloo xew léegi mais Seydatuna Fatima daa dàq ñi am alal fat ki néew doole <laughs> kii du Doucouré waxu ko loolu ndax cofeel ci Seydina xam nga lu neex. Mhm. dañu toog ñoom ñaar di échangeante. Mhm. ba d'accord. Mhm. parce balaa ngaa fas sëy ñaar ñi ko war a séq ku ne da war a jot okkeewam ndax xol kenn du ko jënd. gis nga bu Fatima bëggul woon. yonent bi du ko mas a di ko may Seydina moo tax ñiy forcer nit naan ko diw ngay sëyal far force. Mhm. ñu ko fenn fu lu ci bakkan. yonent bi musul musul doxee koo doxee noonu. yonent bi mësta boole ñaar ñu bëggantewul mhm. ba àddina sosoo ba tey. Mhm. jaar ci yonent yi. jaar ci nitu yàlla yi. ak li ñu sharia jàngal. mooy ku ñuy may nit na nga ko bëgg. mais ay caaxaan mënta weesu bu yàggee di ko bëgg luy loolu fan la am. nekk ak moom bu yàggee di nga ko nopp mais loolu moo mënul ne. mën nga koo miin mu taa mën na nekk nag. miin ban façon miin. am na ñu. <laughs> miinu lan. am na ñu miin. miin moo dul am gis nga koo nobul da nga dul concentré wu ci moom ba koy miin. dëgg la de lépp lu mu def pour jaay jonge wala pour jéem a capter attention ci yow ci la lay gën a soof. Mhm. mais gis nga Seydina Alioune bi mu waxee mbëggeelam Seydatuna Fatima Fatima d'accord. Fatima ni ko man damaa am kilifa nañu dem wax ko ko. Mhm. bu d'accordee ñu fas suñu diggante man ak yow ndax mhm. jigéen kenn du ko maye lu dul baayam daa d'accord. Mhm. mu ne ko an sa papa mu ne ko mi ngi nii ñu jug ñoom ñaar di dem ci yonent bi génn ci couloir bi dajeeg yonent bi. fu doon ñëw ci ñoom. waaw parce que donc y a pas yonent bi ñëw ni leen dégg leen. ah ouais. information laa leen. Oh. am naa sama benn maire bu mel noonu ma fekkee may consommer sama kër toog di bégeeg sama gars yi daf ma naan leen de bu leen ma calculer de <laughs> bu leen ma keer est-ce que. yonent bi daa ñëw gis Fatima jëm si ci moom. Mhm. jëm si ci moom. Mhm. mu dajeeg ñoom. Mhm. ne leen yéen ñaar bég leen ci yéen laa jëm si woon Jibril la nii di dem àggagul. nee na yàlla nee na da a gis yéen ñaar ngeen toog. mu faf leen maye takk na sëy bi ba pare. loolu la tubaab naan bénédiction. mi ngi noonu donc ñoom dañoo teel a am bénédiction yonent bi. yàllaa leen takkal seen sëy. sallallahu alayhi wa sallam bu yàlla takk bu ñu la laajee ban la neel Fatima ak Seydina Ali. Hmm. ñoom ñooy exemple lu sëy. Fatima xool ko. yonent bi xool ko yonent bi ne ko Jibril la ngi noonu du dem àggagul ca yàlla. léegi la jóge sama néeg. nee na yàlla may na la Seydina Ali takk na sëy bi ba pare. mais ñoom ñaar rek la ko yàlla may. ci ndax dem jël sa sa sa ndaw ànd ak moom ne yàlla am ko may. loolu tam facilité la yonent ba daan joxe information yi moo fi nekk <laughs> amatul kay <laughs> am na mag ñu jege yàlla te yow mi jege nga ko <laughs> damay yàlla. dégg nga ne ko ah. fas na seen diggante yéen ñaar. Mm, mm. ah da koo wax rek. sa góor ga départ El Hadj Malick. ndeysaan. radiyallahu anhu ne qad unkiha fawqa samaihi wa faxrun min inkaaxil ilaahi asiilu alaaji malik ne xat ca dëgg-dëgg dina mhm. ko waaw alaaji malik mu ne unki xaxaa mhm. takk na sëy ba arrahmaanu yàlla mhm. fan la ko takkee mu ne fawqa samaihi ca kaw asamaan wa faxrun doy na tiitar bu mat sëkk min inkaaxil ilaahi ci takk ci sëy boo xam ni buñ la laajee ku ko takk nga ni yàlla xam nga loolu yonent bi wax ali da wuti can ñu beesalaat ko ci àddina mais sëy bi am na ba pare mhm. yàlla fas na ko ca kaw mhm. mais wutil can ñu beesalaat sëy bi mhm. ndax nit ñi ñu ne Seydina Ali wutil can ana can li Ali ni maa ngi nii yoruma dara dara yonent bi ne Seydina Ali yoroo dara ci sa poos mu ne ko dara dara dara ba dara booloo te kat ñi dàq ñoo ëpp alal Seydina Ali mhm. mais moom lañ accepté xol xol kenn du ko jënd tax am na koo xam ni du la toppee alal mhm. day ànd ak yow te yàlla tax ba alal ji fekk si ndax mbëggeel ki ki ànd yow te bam lay bëgg alal taxul bu dara amul mu toog ba alal ñëw mhm. soo ko jëndee ki nga xam ne bi alal amee la ñëw doo nit waaye gis nga pap bi Seydina Alin toogee yonent bi ne ko ana can li mu ne ko aw ma yonent bi da ko ne ah sëy nag mënta fasu mukk te can amul wa aatu nisaa saduqaatihinna nihla fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluuhu hani an maria foog nga joxe can mu ne ko aw mu ne ko am nga yére sa kër mu ne ko waaw mu ne ko demal nga jël yére bi dem jaayi ko Seydina Alin dellu këram yére ba mu fa amoon nga xam ne moo nekkoon benn yéreem. moom la wékki. moom Seydina Alioune. fóot ko ba mu set. ndeysaan mu paase ko. Mm-hmm. lem ko ba mu jekk. dugal ci mbuus. xëy ca marché ba pour jaayi ko lum ca am joxe ko can. <laughs> ay Gore. doomu yonent bi mooy xaar sallallahu alayhi wa bi mooy xaar. ku mm-hmm. jaay yéreem pour canee ko ko doomu yonent bi. Mm-hmm. di wax bi. Seydina Alioune départ pour jaayi yéreem. Mhm. fóot na ko ba pare. Seydina Ousmane yëg ni. Mhm. Alioune ma ngay dem ca marché ba pour jaayi yéreem. Mhm. moom Ousmane mu jiitu Alioune ca marché ba. di ko xaar. Alioune dañuy tëll génne yére yi. di wanteer. bi mu yeggee ci marché bi xala Ousmane wër ko. taxaw ci kanamam. ni ko may copain lu xew. ne ko man daal can laa waroon a joxe affaire bi xaw a cóol. ndeysaan. ma eh, bëggoon waaw oh, oh, pas cóol quand même. ñu waxee noonu ñoom. ay ay saxaaba lañu ay cóol yooyu wala bokk ah wala wax ko ci arab bokk amul cóol nañ comprendre jaajëf waay <laughs> wala bokk ko ci li nga jàng ci waxi daa waxinu daara bu ko wax ci waxinu jamono wala boog fis <laughs> ay cóol amul mais amul cool wax ko ci <laughs> ci waxi daara ne ndax maa comp. <laughs> wala compo. waaw maa comp léegi. <laughs> yaa ngi waaw. can laa. <coughs> safur laa can mm, mm. moo ma dugal ci jaay sama yére. Mm-hmm. mu ne ko yow tam nag copain. waay. mu def nii. yow soo amul man ma am. Ah. mel na ni am nga. Mm-hmm. mais bul jaay sa yére pour ay affaire can. wallaahi ñaata nga koy jaayee. ñu mhm. ko taw five. non wala boog taatu faay. fit wey. dégg nga. Mhm. ñaata nga koy jaayee ci misaal. ñu ko mille cinq cent. mu ne ko mille cinq cent ok. pour nga dégg ma yow pour nga comprendre. ñu mhm, ko trois mille a ngi nii. mu doublé ko. te nga jël sa yére delluwaat. ñun li nu yàlla sant mooy nañuy dimbalante mhm. rawatina ku jaaxle mhm. ba nara boppam ndax xat-xatu jamono mhm. fun la fekk na nanu jaamu yàlla ci yow ñun lii la nu yàlla sant ñu ko copain lii moo war alaaji naa Seydina Alioune jëli xaalis ba dem joxe can gi ñu fas digganteem ak Fatima deesalaat ko guddi jot ñu war a tëdd ñoom ñaar amuñu matelas bu ñu tëdd ñu lijjanti ba am mat matelas. Mhm. mais amuñu dorob buñ sàngoo. oh mais mu ngeeg mu ngekk mu ngeeg mu ngeeg ñaata tout à fait la wala. joxe na can gi. ok léegi problème bi mooy ñu war a sàngoo amuñu luñ sàngoo. ñu dem ba am dorob buñ sàngoo mais dorob bi jotu leen. buñ nëbbee seen tànk seen i seen bopp nekk ci biti. Mhm. buñ sàngee seen bopp seen tànk yi nekk ci biti. ok te kii ma lay wax mooy doomu yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. te ku baax te ku baax ku ne seet si na ko mu bañ. xam nga loo cay jàngee. Mhm. loo mën a tiitaru mën a tiitaru mën a tiitaru jàppal ni doomu yonent bi mhm. moo la gën ci côté yëpp moo la gën ci boor yëpp te accepté na borom këram ndax mhm, ñàkkam mhm, xam nga loo cay jàngee mm. mooy sëy alal amu ca wàll mm, mm. sëy sant amu ca wàll sëy barke amu ca wàll alaaji pap amul benn sant boo war a sant bu la war a teree jaamu sa borom kër dëgg la de li laa sant damaa war a bang bangi dañ maa war a toppatoo jigéen la dama ñu la sëy amul sant alal amul sant boo yoroon àddina ak li ci biiram sa borom kër muy sa kilifa da nga ko war a topp da nga war a wéy ci ay waawam ndax sayyidatuna Fatima doomu yonent bi la bu dee VIP ki tax ñu bind VIP mooy baayam mooy sayyidina Muhammad te teewul bi topp Aliyun jotee daf koo topp ànd ak moom xam ne alal amul sant sax alal seexluwul mu ngi noonu ndax mën na dab ku ne mën na dab ku ne ah ah mën na dab ku ne mën na dab ku ne borom xam nga lu mu xaalis moom seexluwul wa tilkal ayaamu nu daawiluha bayna naasi yàlla nee na maa ngi leen di conseil yéen ñi nekk ci àddina na ngeen bàyyi xel ni àddina day wëlbatiku day dox korono la dëgg la de bis bis du ñàkk am na ko metti woon ci moom démb mhm. tey daa neex ci moom bis du ñàkk bis du ñàkk am na ko ñàkkoon démb tey dafa am mhm. Mhm. lu ci nekk rek teg ko ci teguwaay bi mooy bu la yàlla dénkee alal koo mën a dimbali na ko dimbali. Mm-hmm. mais ndimbal gi nag na ci jiital ña nga bokkal. Mm-hmm. ñoo jaare dimbali sax. alaaji pap yàlla dénk la teraanga nga nekk samba àllaar. Mm-hmm. yaa baax ci bitti. sa benn mbokk mu bokk ak yow ñi la gën a jege. bu ñu añee du ñu reer. yàlla yàlla ñu ci àll musal. sa yaay ji la jur di reeree lu ma la mënta wax. ci ñàkk solo. te yow bis bu ne yaa ngi jël sa alal di ko def ci ay jàmbur. yu la jëriñul. ngoon gu ne nga laal dibitër yi pako <laughs> ak ay jàmbur te bàyyi say mbokk. mais looloo bari ci jamono Pape yàlla musal loolu moom baaxul moom ku ko def réccu nga ko. léegi nag Pape ñoom ñeenti ñii nag. Mhm. dañoo nekkoon ay goroom. Mhm. wax naa la ni la. Mhm. Aliyun yonent bi moo ko may. Omar. moo may yonent bi. Aboubacrine. Euh, Omar. moo may yonent bi Aboubacrine moo may yonent bi Ousmane ak Ali yonent bi moo leen may kon ñaar ñii dañ koo may mu may ñaar ñii. mais karamal karamallaahu gi lu ci topp ci Seydina Alioune. wajaawu. ah mooy lan dañ ko xoolal dàkkantele. Ah. jamono yi muy judd. booba l'islam ñëwagul. Mhm. dañ daan jaamu xërëm. Mm, xeer. waaw. Mhm. yaayu Seydina Alioune. Mhm. bokkoon ci ñi daan jaamu xërëm mhm. avant muy ëmb Seydina Ali mhm. mais bi mu xasee yëg ëmb ci Seydina Ali mhm. saa yu jugee pour jaamu ji xërëm biir bi di metti ba du mën a dem ah, d'accord est que dégg nga wax bi dégg na avant muy ëmb Seydina Ali da daan jaamu xërëm mais bi mu yëgee ni ëmb na saa yu jugee pour jaamu ji xërëm biir bi di lemu ba mu toog moo tax yonent yi sunu borom du leen jaarale ak saaba yëpp ci n'importe quel jigéen ci n'importe quel parce que bu yaayam continué woon di jaamu xërëm mhm. ak ëmb gi mu ëmb Seydina Ali mhm. ak Seydina Ali li mu représenté ci l'islam mhm. nga xam ne yonent bi danaan wax ni ana madinatul ilmi wa aliyun baabuha yonent bi danaan wax ni bu dee xam-xam dëkk la man maay dëkku xam-xam mais Ali mooy bunt bi ah, kon kon kon am euh, aqiqa ci Sidna Aliou lañ ko jëlee. ci lu wér. dafa bari woon xam-xam. yonent bi daan wax ni Sidna Aliou bu dee xam-xam dëkk la. Aliou mooy bunt bi. ok du li ma bokk ak moom moo tax. Hmm. yàlla moo ko defal lim ko defal moom Sidna Aliou. Hmm. léegi nag baayam yaayam bi mu ko ëmbee. lu jiitu mu koy ëmb da daan jaamu ji xërëm mhm. mais bi mu ëmbee Seydina Aliyun su bëggee dem bi day metti mu toog day am lu koy baare léegi nag ëmb na ko ba wasin ko mësta dem ci xërëm yi ci xërëm yi ok ñu ne Seydina Aliyun karamallahu <laughs> yàlla moo mën a organiser nag yow sax koy programme teet teet teet teet teet teet ñu ne aliyun karamallahu wajahu yàlla moo teral xar kanamam ba yaayam masul sujjóot xërëmam diiraa mu koy ëmb yàlla mën régi régisseur <laughs> régisseur de programme. <laughs> parce que moom yàlla. Mhm. suy programmer dara. Mhm. day bañ mu am fu fuite la ñuy wax. Mhm. affaire bi du am fuite. bu la naree def yonent day fexe ba tànnal la yaay ju amul sikk bu la naree def nitu yàlla day fexe ba sa yaay doon nitu yàlla amul nitu yàlla yi ci réew mi alaaji pap koo fiy tudd songu yaayam te yaayam nekkul jigéen ju sell Ousseyni mi mi dee ci ci Karbala ku ko jur. Seydatuna Fatima. mais alors. dama lay yëngal fi mu ne nii. mais doomu Seydina Alioune la. dama yore samay samay samay pic yu sew yoo xam ne ni dama la koy jam rek ngay takk. gis nga la Alioune muñoon. Uh-huh. Fatima muñ ko. Uh-huh. yàlla fayee na ko doom joo xam ne ñaar. Uh-huh. Xasan ak Xuseyn bari na ku jàpp ni ay seex lañ duñu ay seex. ah duñu ay seex. non non. lu tax Xasan ak Xuseyn. mag ak rakk lañ. Ah. ah d'accord waa ñun sunu ngéwél gi ñu poussé ci ku jur ñaari doom ne kii Assane la kii Ousseynou gis nga ñun ah, yoonu Nicaragua gi maa ngi ñaan ku ma fa mën a yóbbu yóbbu ma ma dem ndax Sénégal au fur et à mesure ngay màgg di découvrir ay affaire yoo xamante ni mag ñi na ma yàlla baal teguñu ko fenn xaw ma ci seen naf bakkan lañ ko teg wala ci seen neex-neex ah, ah yow kii ah, Fala <laughs> mais ñun fu ñu teg ñaari góor yu juddu Assane Ousseynou. ñaari góor yu góor yu judd Assane Ousseynou ñaari seex yu ñëw Assane Ousseynou. te ay ma nga rek la. est-ce ok d'accord. Ousseynou. Mm-hmm. doomu Seydina Alioune la. Mm-hmm. ña ngi ko rey jabaram moo ko posone mu faatu. Eh. <laughs> xanaa Assane moom jabaram jabar ji waa réew mi <laughs> waa koñ bi kaay leen xool. jabar ji waa koñ bi la woon aadaway <laughs> ah, laaj na <laughs> jabar ji posone ko mu dee nii nii gratuitement Xasan dafa am soxna uh-huh. ñu bëgg a Xasan ah. xool côté bu ne mënuñu faa jaar tey jigéen ñu ne moom jabaram boo dee wër jigéen ñi gën a bëgg xaalis ci la bokk mm-hmm. nañ ko woo proposer ko alal mu posonel ñu ko mm-hmm. ñëwoo jabaru Seydina Hassan. Mhm. proposé ko alal pour mu posone Hassan. Mhm. lañ ko fay tuuti. Mhm. mu ne nañ ko yokkal. bi ñu ko yokkalee som ba mu bëggoon. ba dollilaat ko ca leneen lu ko doublé. mu ne suba heure tel danaa ko posone ca la ko posone mu ñu ne ko nag boo ko posonee ba pare ñu fay la alal. mu ne da ngeen may fay ba pare parce que wóorul. ñu teg alal bi ci loxoom. baalu bandi la huit heures pile. waaw ah, waaw mu koy jox ndékki posone ko Assane Fatou. am na koo xam ne su la mënta jot day xool fa nga gën a jege. mu jaare fa. subhanallah. da nga mm-hmm. am na koo xam ne bu la bëggee yàqal. Mm-hmm. te mënta jot ci yow. Mm-hmm. day xool fa nga gën a jege. Mm. mu jaar fa. tey Youssou Ndour. jàngalekat la de. da nga moo ah, tax soxna. soxna dañ koy tànn pap yii xew léegi. Mhm. nga xam ne ay ans yu ñu monté moo la dugal ci jigéen. ah ba yooyu yëpp bu ci dugg. ay xar kanam yu nu xëccaat. bul dugg ci yooyu yëpp. defaraat ko moo la tax a dugg ci jigéen. Mhm. te tànnoo ki ngay takk alaaji pap mhm. wóorul de pap jigéen bu demee ba posone jëkkëram ndax alal. parce que jigéen su baaxul mën na tromper jëkkëram. gis nga pap ki lay jox nga lekk mm. di la jox nga naan mm. fekke woo ba muy rosi mm. fekke woo ba muy togg fekke woo ba muy bër mburu ma fekke woo ba muy defar njarum soow ma ba muy defar kafe ga fekke woo ko confiance ak cofeel dong nga mën a dox seen diggante yàlla sàmbu la dëgg la de lu mu bëgg def ci yow bu ko bëggee da koy def dëgg la de te góor ñëpp a léegi ñëpp feebar genn wàll gaa ngi gaaw a dee jigéen ñi pap ñi ngi xeetu noob goo xam ne buñ la ko noobee lépp lu nu bëgg fii ba yowmal xiyaam mhm. buñ la buñ la ne woon wutali ma fleur yi am yowmal xiyaam da ngay topp guddi gi di daw rek di ko wuti mhm. te doo àgg yowmal xiyaam dëgg la de <laughs> ak a <laughs> la daan la daan commandé kii xaal may wër grand mbeddu Grand Dakar yi <laughs> sega maati génn maa ngi sant. Pape da gis. jigéen Pape da ngay gis jigéen. di la wutloo wutloo wutloo yu garaw. Pape da ngay gis jigéen. mu am jëkkër. Uh-huh. di def ci dëkk bi naka sudul noonu. subhanallah ñëpp xam ko ni ko jëkkëram xamee. mais jëkkër ji du ŋaang. Uh-huh. dangay dégg ñu naan mais kii jabaram ji ni mu nekkee nangam ak nangam yëg na ko li ko jàpp bu ko jàppee du wax. moo tax sama xarit ci tubaab bi naan il faut il faut épouser la mère et pas la fille takkal kii doon yaay. jabar dañ koy tànn. Ah, ok ok pap soxna du du du du ci mbëggeelu une semaine ci ngay takkee jabar. dëgg la dëgg dëgg la dëgg la. la xaw ma. Mm-hmm. jëmul ci sëy. Mm-hmm. Mm-hmm. mbëggeel ak sëy kenn du ko sorxo sorxo tey laa la xam. insa nga dégg ko naan ndaw si une semaine lañ xamante après pas yi ne <laughs> dóor nga sa loxo ci ëkk de. Mm-hmm. une semaine nga takk. Mm. pap booy takk da ngay takk koo xam ni maanaam cofeelu biir la la ëmbal. Mm-hmm. mooy cofeel goo xam ne mën ngaa duur ci kaamil ni lalay lay lor. ak la lay gaañ. Mm-hmm. du mës a jóge ci moom. mais koo xam ne bu alal ñëwee mën na laa jaay. daggal ma ci yéreem mu wut ciseau. daggal ma ci karawam muy wut. te pap jigéen ñaa ngi la ko mystigeel xeetu mystique goo xamante ni bii. nopp seen jëkkër yi ba duñ ŋaang. da ngay nekk sa jëkkër du la teg bët. yaa ngi du bàyyi suba man naa wut ay ñaan sax ci dëgëral diggante. mais di di def def lu ñaaw. ñoom nag defuñu boobu nopp bi lañuy def mooy sama jëkkër lu ma def neex na ko. loolu baaxul. Mhm. pap am na ñoo xam ne seen jëkkër du leen gis. Hmm? tey Dubaï gannaaw suba Siin gannaaw waat suba Washington. waaw lu ñu fay def gannaaw waat suba Guinée nee nañ dañuy jëndi bagage. Ah, waaw sa jëkkër du la teg bët du la gis. Mm-hmm. te ñemewu la takk beneen jabar. Mm-hmm. bu ko defee àddinam yàqu. Mm-hmm. gàllaajoo nga ko sëriñtu sëriñtu sëriñtu te am na ñoo xam ne paap jigéen ay jigéen añ ci réew mi ñoo xam ni gis nga mbëri yi di bëri bu ñu yeewu woon dañuy xool façon jigéen ñoon ñu leen di wutal sëriñ fu sëriñ na ci réew mi ak lu mu ruqe ruqe xam nañ ko te képp ku liggéey sa jëkkër ba mu topp la te toppeewu sago nga jàpp ni jëkkër nga yor yëgoo la yoo mm-hmm. alaaji Pape bari na kuy sëy ak mikke mm-hmm. mikke waaw ok parce que kii ngay sëyal àndul ak xelam mm-hmm. te nit bu àndul ak xelam mikke la nga liggéey ko ba sagoom nekkatu fi yow luy sunguf jàmm nga ko jox sa jëkkër pour pour nopp ko yàq nga liggéeyam mm. xale nga kook ay mbokkam am na góor ñoo xam ne fi mu seen dund seen yaay bokku ci am na góor ñoo xam ne fi mu ne seen bànneex seen seen jabar sël dañoo dem ba bandone bandone ñëpp lu immeuble bi rafet rafet lu étage bi kawe kawe amul sa benn mbokk moo bokkal deret mu fi yeew ah loolu moom loolu moom du diggante nag loolu moom neexul moom non am na ñoo xam ne pap dañu lay conseil ba di la conseil defal attention ci sa mbokk yi mais Pape nan la góor di bàyyee ay mbokkam ànd ak benn jigéen abandonné ñëpp. gis ah, moo tax ñu moo tax moo tax mag ñi naan jéegu puso. am na jigéen ñoo xam ne dañuy ñaw di defar. am na jigéen ñoo xam ne bu ñëwee ci kër. xam nga lu ñuy njëkk a observé. Mm-hmm. sama jëkkër kan kan la amal jafe-jafe. ñu mm-hmm. dox ci tànk jàmm. am naa jigéen bu mel noonu jatu puso noonu la mel moom day ñaw jéegu puso la. Ami Dieng day ñaw madame Diallo. am na jigéen ñoo xam ne alaaji pap uh-huh. bu nu ñëwee ci kër. Uh-huh. dañuy xool seen jëkkër. frère yi mu am kan kan la ci neexoolul ñu fexe ba muy reerandoo ak kooku ba jàmm dellu seen diggante. ay da njaay ay da njaay saa yi mu xuloog sama rakk ji Pape Samba daf may woo ma juboo leen. <laughs> am na jigéen ñoo xam ne alaaji eh, Pape seen jëkkër dañ leen naan yekkal añ bi mbaa yekkal reer bi. Mhm. ñu ko sa frère diw bu ñëwul du ma yekk. Mhm. Mhm. lii mooy rôle jigéen juy defar. mais Pape. tabax kër. quatrième étage. mbaa cinquième étage. atum yàlla. sa rakk tegu fa tànkam du sa yaay du sa papa du sa sœur yow daal dañ say mbokk dañ laa bàyyeek sa jabar ak say goroy jabar sa jabar xam nga góor ñi waye di ay mike nga xam ni ay waye de lok lañ <laughs> oustaz tey lu ma rek bu ma tëdd naa ko fay baal ko seen yaayu jabar moo leen gënal seen yaay ji leen jur <laughs> yóbbu sa goro màkk bàyyi sa yaay. du yoon mais luy raison bi. ça c'est sa goro teg ko foo xam ni tegoo fa sa yaay ji la jur. Mm-hmm. li sa goro bi jur sa jabar xam sa yaay xamu ko. Mm-hmm. ci yow. am na mais am na itam ay jëkkër yuy liggéey seeni i jabar aussi. bi c'est vice versa. mais bariwul. ok waaw quand même jigéen ñi dañu bari pexe. gis nga goro. fonkal ba fa fonk yam mais looy def ci teraanga jiital ci sa yaay ji la jur wallaay nga teraanga bu ca sa yaay jiituwul safewul ba ko baaxal ci mbedd mi defal lu ne ci àddina bi sa teraanga bu ci sa yaay gisul boppam zéro la zéro amul sens mais takk jabar sa jabar orienté la ci ay mbokkam nga faale ay mbokkam di fa wane njàmbaar toppatoowoo say mbokk ku bàyyi say mbokk gis ko ànd ak ay mbokkam. dëgg la de. la ilaha illallah yow da waat yeneen i daara incha allah <laughs> tu vas ouvrir d'autres daara. donc loolu moo jëm loolu moo nekkoon euh, lu ñu mën a wax ci saxaaba yi. léegi nag Pape nag ñu bokk. waaw. gis nga Seydina Ousmane. Mhm. soo toppee ay maamam. Mhm. da koy lim ba agsi ci maamam mu ñuy wax mu Mughira. Mughira macha allah. léegi muxiira moomu nag. maam la ci yonent bi. kon ba tey dañoo bokk. waaw. foofu lañ dajee ci maam. Ah. mi ngi mel ni ñu am benn maam maag yow. ñuy lim say maam ba agsi ci maam jooju. man nii bu ñuy lim sama maam foofu la ñuy correspondant foofu la ñuy dajee. Mmh, foofay nekk trait ñëw bi. léegi nag yonent bi fi mu dajee. Mmh. ak Seydina Ousmane ci mbokk. Mmh. mooy Muxiira. Muxiira léegi nag am na beneen maam moo xam ni mhm. maam la ci Seydina Omar mhm. maam la ci Aboubacrine mhm. maam jooju xam nga nu mu tudd Murata Muxiira ak Murata Murata mooy maamu Omar ah. Muxiira mooy maamu Ousmane te Murata moom man dégg naa ko ci maamu yonent bi moom laa lay bëgg a wax ah. ni mu nekkee maamu Aboubacrine noonu la nekkee maamu yonent bi foofu lañ dajee ñoom ñaar encore waaw dama laa bëgg xamal ni la saxaaba yi ñoo ak yonent bi rek àndu dajal non non d'accord dañoo xoolal d'accord yonent bi daa nekk seeni goro uh-huh. ñu dajawaat nag ci ay maam xam nga yenn saa nga dégg ko ak yow ni la diw mii bokkee wuñ fii de ah, kon dafa mel ni Maam Maaram Mbàkke rek ni nga koy tuddee tudd Seydi Hadj Malick uh-huh. Maam nga tudd ko tudd Serigne Touba noonu rek la branche bi ah, ñaari car la bi d'accord branche bi uh-huh. ñaari car la garab gi. mooy maam Maaram Mbàkke. cer kay wii. Uh-huh. moo dox ba ci Serigne Touba car wii moo dox ba ci Seydil Hadj Malick. Ah. ñu doon ci maam Maaram ñu doon ñu doon benn. bokk benn maam. booy tagg Serigne tuubaa te teggiwoo sa tànk da tudd maam Maaram. booy tagg El Hadj Malick te teggiwoo sa tànk da ngay tudd maam Maaram fa daje. d'accord donc loolu mooy diggante yonent bi ak saxaaba yi. léegi nag loolu moo répété wu ci diggante yonent bi ak saxaaba yi. su dee Abu Bakrin moom maamam mi mu dajeeg yonent bi ñu bokkee ko. mooy Murata. kon kon sëriñ Maodo sëñ Bass Abdou mooy mbokkam. li loolu ma la wax man la bëgg. Serigne si mii. waaw mu maam Abdoul Aziz si Dabaax. sëñ bas Abdou Khadr mooy mbokkam. beneen bi ci des. maam Safiyatu Ñang mi nga xam ni mooy wéy juru alaaji Abdul Aziz Dabaax bu jigéen. sooy lim ay maami sëñ Fàllu ak ay mbokkam foog nga tudd maam Safiyatu Ñang ah. sëñ Fàllu boo ko dee tagg ci côté ndey ak ci côté baay. waaw da ngay lim sëñ Touba. laa lii la loolu la. muy baayam. mais boo continuer da ngay tudd maam Safiyatu Ñang waaw moo tax sëñ Fallou daan faral di wax ni man Fallou may Sénégal. est-ce bi dafa aay de. déedéet la la allahu akbar. Hmm? <laughs> man Serigne Fallou may Sénégal. Hmm. soo ma coupé ci Cheikhul Khadim fekk ma fa. Hmm. waaye boo ma coupé ci El Hadj fekk ma fa. macha allah dégg nga wax bi mhm. léegi nag murrata mhm. maam la ci yonent bi mhm. ndax yonent bi booy lim ay maamam il faut nga tudd murrata ndax da nga naan abdullahi abdu muttalib moo ko jur shaybata hashim abdi manaaf xusay kilaab murrata murrata soriwul ah, d'accord ok te ba tey murrata maamu yonent bi la murrata moomu nag ba tey ñu ngi ci li mu bokk ak saxaaba yi xoola murrata moomu ni mu nekkee maam ci yonent bi. sallallahu alayhi la nekkee maam ci Abu Bakrin Siddiq. Mm-hmm. léegi nag Seydina Omar. Mm-hmm. dafa am maamam ju tudd Kaab. naka Kaab. Kaab ok Kaab. Kaab moomu nag. Mm-hmm. maam la ci yonent bi. encore waaw. parce que xoola sooy lim ay maamu yonent bi. da nga naan Abdou Muttalib hashim abdi manaaf xusay kilaab murata kaab kaab moomu nag mooy lim ay doomam mhm. da ngay agsi ci Seydina Omar mii sëtam mhm. kon ndekete yonent bi fi mu bokkee ak Seydina Omar ci mbokk mhm. ci kaabu fa lañ daje ci ay maam d'accord mu des kan Seydina Ali Seydina Ali léegi nag amma aliyun xadil taqayaa bi shaybatil hamdi est mu ne bu dee Alioune nag. Mhm. moo gën a gàtt. Mhm. ci mbokk. Mhm. moom càllale gi. guddul. nu mu bokkee moom. Abdou Moutalib. mooy maamu Seydina Ali. waaw ah. moo jur baayam. Abdou Moutalib. mooy maami Seydina Muhammad moo jur baayam. danga naan Aliyun. Abu Taalib ay baayam. Abdou Moutalib a ko jur. Muhammad Abdoulaye ay baayam Abdou Moutalib a ko jur. Adam mu dasaasa. ño <laughs> xanaa neex na. deret day dogalaat wallaahi <laughs> ba pare diggante bi dafa gàtt benn maam lan bokk moom daal xoolal <laughs> danga naan Abdou Muttalib mhm. na yonent bi moo am doom mhm. doom ji tudd Abu Taalib mhm. Abu Taalib moom moo am doom muy Seydina Ali hmm, d'accord Abdou Muttalib moomu uh-huh. moo am doom mu tudd Abdoulaye. Eh. Abdoulaye moomu moo am doom mu tudd Mouhamadou Rasulullahi. sallallahu alayhi wa ñoo bokk direct direct direct. benn maam lan bokk ñoom ñaar. benn maam. kon kon kon digganteem ak saxaaba yi du ànduk hasard. Njaga Nduur ak Buuba Nduur ni nu bokkee ay maam. Uh-huh. noonu la Aliyun bokkee ak maam Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. dégg nga Abdullahi. Mhm. Muhammadu Rasulullahi. sallallahu alayhi wa sallam Abdul Muttalib. Mhm. Abu Talib. Seydina Ali. est-ce que. kon léegi ñoom. Mhm. dañoo bokk ci deret. daje ci ay maam. ba pare ñu wëlbatiku nag ñu gëm ko. waaw mënoon nañoo bokk ba noppi duñ ko gëm. waaw waaw. parce que yonent bi am nañu bokk ak moom ko te gëmuñu ko dëgg la dëgg la la. am nañu bokk ak jamono. te gëmuñu ko. waaye gis nga Seydina Ali. gis nga Umar ibn al gis nga Abu Bakrin seen cofeel ci yonent bi alaaji Pape foo ko takk weesu na amuñu woon sago ci yonent bi alaaji Pape saxaaba yi dañoo jeexoon takk takk takk takk takk ci yonent bi amuñu woon benn sago ci moom Abu Bakrin dafa ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa fekk dañuy gàddaay pour génn màkk mhm. yonent bi ni ko yéeféer yi dañuy topp suñ tànk yi ba xam fi ñu campé mhm. mu ne ko lu xew mhm. luy solution bi mu ne ko nañ dugg ci xunt mi xanaa yoof lañ jaar <laughs> dëkkub Sidna Limaam <laughs> ci ñoom laa dégg xunt rek moo tax may waxee nii <laughs> danoo mel ni ñu jaare fii almadi xaw ma ci ci ci yoof laayeen bi. yaa ngi dégg xunt maa ngi fii man menn xunt laa xam moom laa dégg ñu nettali ma ko muy xuntu se xuntum Seydina Limaamu soreewuñoo ak moom fii ci almadi bi du xunt moomoo xëy na rek parce que ñoom ay nomades la ñu woon quand même. yaa ngi dégg Pape <laughs> waaw. bi ñu jaaree ci xunt mi ñoom ñaar. <laughs> Eh. Aboubacrine ni ko. Mm-hmm. xunt mi dafa bari ay pax te ay jaan ay jaar ay jiit ay jiit yiy lore yépp ci pax yooyu la ñuy dëkk wóorul quoi wóorul wóorul léegi bi moom tëdd di dallu mhm. ci biir xunt mi mhm. Aboubacar nee na man duma nelaw parce que bu ma àndee noog moom tëdd di nelaw mhm. dara mën naa génn ci pax mi màtt ko te loolu sama gàcce la ah, wax na dëgg Abubakarin jël yéreem summi ko di ko daggate day dagg lii dugal ci pax mi daggaat lii sànci pax mi daggaat fii sànci pax mi ba pax yépp Abubakarin am lu mu fa saañ lépp pour protéger ko pour protéger yonent bi oh. léegi nag mu am pax mu mag mu des am pax moo xam ne saañ na pax yi ba am benn pax mu des mhm. amul lu mu fa saañ mu ne day jël tànkam teg ko fa lu mën a génn bu ko màttee baax na. Oh. mais na yonent bi nekk ci jàmm. oh oustaz. foofu daw na yaram ah. Abu Bakrin jël tànkam. teg ci xunt bi. Mm-hmm. ci pax mi. Mm-hmm. ndekete am na jaan ju fa tey. at yu yàgg alaaji Paap. maa du rek. di xaar Seyduna Muhammad jaan ji ni Aboubacrine puusal sa tànk mu ne ko duma puus su dee luy jariñ la mhm. du jaar ci man ci moom la jëm mais bu dee luy lox baraa lor kenn wala mu di ko lor moom sang bu tëdd bii ci sama wet mhm. man lay se ba pare jaan ji wax ak moom Aboubacrine dëgër bopp jaan ji matt tànku abu ayya Pape gis nga bi ko jaan ji màttee mhm. teggiwul tànkam de. dafa bàyyi dangar ji di yéeg. dangar ji di yéeg. ba agsi ci bët yi. def ko espèce rangooñ. Mm-hmm. rangooñ yi ñoo fees ci bët yi ba tuuru. Mm-hmm. dal ci tànku Seyduna Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam yonent bi siggi xew. mu ne ko jaana mat. te newul on yooxuwul onkul. bi ko jaan ji mat jeex ci bi jug. Mm-hmm. ñaanal Abu Bakrin moccal ko ko ba dangar gi deñ mu ne ko yàlla xamal na ma ni boo doxaatee ñaari at wala ñetti at dangar ji dina dellu si du la gaaw a bàyyi mais ma fekke ak ma ñàkk a fekke heure bu la dangaru jaan ji daanee ci sama gannaaw mouchoir bii garde ko te fonk ko loo mën te bis bu la dangar gi daanee lee nga jël ko fóon ko te kaalawoo ko te yenent bi Abubakarin jël ko di ko fajoo su ko dangar gi daanee lay rek mu jëfee ko ni ko ko yonent bi waxee woon mhm. mu am soxna mhm. joteeg soxna si soxna si jël kaala ga sànni ko ca àll ba oh ah. mu ñàkk ko Aboubacrine moomu pap dafa jeexoon tàkk ci yonent bi ba nga xam ni sallallahu alayhi wa sallam ni yonent bi di soloo noonu lay solee mhm. ndax bëgg ko ni muy waxee noonu lay waxee nuróog moom ñu ànd génn ci xunt mi jëm Makka jëm Madina mhm. waa Madina génnoon di ko teeru mhm. te booba dañuy dégg turam rek mu suñu koo gis mhm. moom Abu Bakrin di turu eh, yonent turu yonent bi ok ok léegi waa ma Madina alaaji Paap bi ñu déparé génnee Madina di teeru yonent bi ñëw ba agsi fekk yonent bi ak Abu Bakrin taxaw xàmmeewuñ kan moo ci yonent bi ak ko ci oh, Abu Bakrin ndax nuroo ah. ndax ni nuy nuroo ñoom ñaar <laughs> mais Aboubacar ndekete eh, eh. li ñu koy jaawaleeg yonent bi daf koo zëne ndax lan parce que nee na warut waruñu koo jaawaleek sang bi. waaw sang bi du moroom moom daal waaw dëgg la it. xam nga nu mu def la it kaala gim kaala woo woon. Ah, la laqar ci. tàllal ko yonent bi ci naaj wi. Eh, nee na lam ca jublu mooy dañoo bëgg ñu xam ne surga. mooy keral patron am. Oh. gaa ñi bàyyi ko akolaat yonent bi ne ko yaay sang bi ndekete. sallallahu alayhi wa sallam macha allah. macha allah jërëjëf yaa oustaz loolu neex na ci waxtaan ci diggante yonent bi ak saxaaba yi euh, bokk gi mu bokk ak ñoom ak goro gi ñu doonante seen diggante loolu defe naa euh, jàngat la et wax naa ko sànq répétition dafa pédagogique ñu ngi waaj a jël pose ñu ngi xaar nag euh, seen ay question ak commentaires yi nga xamante ni sànq ba tey yéen ngi ñu koy yónnee ci hashtag bi di midi plus euh, Kia moo koy taataan ca ba ñu tàmbaleeg léegi elle va nous ci kanam tuuti ci plateau bi bu ko defee ngeen mën a sukkandiku ci tontu ak jàngale yi nga xamante ni yaw saas mu ngi ñu koy jagleel sànq ba tey ci télévision Futur Média xanaa ñu profité ci rek laataa ñu jàll ci publicité yi ndokkeel bu baax Nathalie Nathalie nag mooy euh, madame Thiam euh, chéri Momo si euh, borom cheveux yi ñu ngi koy ziar bu baax lu munul ñàkk la xam nga bu ñu dee waxtaanee diine ku ñu naan ma waxal anniversaire waxal lii. dañ koy def rek waaye <laughs> wax dëgg yàlla euh, euh, mooy loolu mais bon Birane Samb joyeux anniversaire quand même euh, Parcelles Assainies unité 26 de la part de Ndeye Fatou Kane animatrice L LVI voilà li ci topp ci ay souhait anniversaire nañ ñu ko baal ndax waxtaan bi fi mu toll dañuy jàll ci publicité yi doog dellu si ci plateau bi. Thank you. Energy Drink, la différence en matière d'énergie naturelle. Une boisson qui allie la qualité et l'authenticité, des saveurs délicieuses, un goût sensationnel, le tout préparé avec soin à partir d'ingrédients naturels. Real Mix Premium Energy Drink, c'est un pas en avant vers une meilleure consommation. Enrichi en vitamines essentielles, Real Mix Premium Energy Drink prend soin de votre bien-être tout en vous donnant le coup de boost nécessaire pour rester en forme. Optez pour une boisson énergisante, sans taurine, sans aspartame, mais avec un goût irrésistible. Real Mix Premium Energy Drink, c'est du tonus naturel. nag euh, dañoo génn tuuti Dakar ñi ngi fii ci département du Mbour euh, plus précisément ci commune euh, bu Diass alors tey waxtaan la ci diggante ñun ak maire bu Diass di Mamadou Dione seen émission sama kër ay bonjour ça va je sais que ñaan benn nangu rek même sunu maam yi bu ñu daan fecc ñoom ba léegi feccu séeréer Safen dañuy tàllal loxo yi. Uh-huh. boo comme ni avion yi di atterrir. <laughs> ba ñu am aéroport xëy na c'était prémonitoire. <laughs> donc li ki des rek moom mooy euh, def un travail boo xamante ne askan bi gis dinañ ci gis dinañ ci gis seen bopp. Mm-hmm. sénégalais gis gis seen bopp mais ñu def ko dans un cadre concerté. Mm. daan nga gis léeg sax benn suuf soo xamante ne ñaar nit lañ ko gaa yi woon. mais yooyu application bi ñu mettre en place daf koy détecter. Mhm. donc nit ku ñëw di. soo xasee ba dugg sa tur sa carte d' identité danaan la. voilà dina la wax ne la délibération bi nga yor. Mhm. est ce que yow rek yaa ko moom. bu dee doublon am na ci dañ la ko signalé. Mhm. bu dee aussi dafa empiété ci titre foncier état dinañ la ko wax. bu dee également newul woon ci registre bi jël les équipes précédentes enregistré wu ñu ko dinañ la ko wax. bu ci nekk nag ak traitement am. parce que ñun bëgguñu nit ñuy jël litige yëpp dem atterrir dans les tribunaux litige yëpp dem di atterrir dans les gendarmeries et asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna wërngal képp nag laa wax émission bu bees tàq fii ci biir Sénégal nan la tudd ñu ne mbanali man fenn gise nag maay ànd ak yéen dem seeti gox bu ne ma dugg fa xool ka fa dàq a togg ka nga xam ne tubarkàlla masalla kuddu moo dama ci loxo ma dem seeti ko ñu ànd ak yéen ci mbanali émission bu bees tàq la ma di leen ci woo nag képp koo xam ne numéro bi nga xam ne yaa ngi koy seet e mooy émission mbana li danga may woo ma ñëw sa koñ man maa lay jox dépense ba pare may ànd ak yow ci marché bi ñu xool lan moo xew bu ñu paree nga wan ñu lan nga mënee koñ bu nekk nag mbana li du yem Sénégal kese de dinaa dem Gambie ndax dinaa toog bu fa laa Gambie waaye dinaa dem France dinaa fa dinaa dem Amérique dinaa fa fépp partout dans le monde man Penda Guissé di ngeen ma gis ma ànd ak mbanali ñuy dem ku dàq a togg ak gox boo mën a ne man Penda ngay àndal ñu dem seeti mbanali waa sponsor dañ may topp na damay ànd ak dawlin dinaa ànd ak ceeb naa ànd ak tamaate dinaa ànd ak cube naa ànd ak lépp loo xam ne dafay neexal togg ak mbanali ak man dootoo leen ko defati topp leen ma ñu dugg si waañ bi ma xool lan moo xew émission bu bees thank you bég ba léegi ànd ak yéen en direct ci télévision Futur Média guddi àjjuma ak bëccëgug àjjuma Oustaz Modou Fall ak man mi sànq ba tey nag ñu ngi taataan seen i commentaire ak euh, laaj yi nga xamante ni yéen a ngi ñu koy yónnee ci hashtag bii di euh, Midi Plus ñu ngi ndokkeel sunu xarit yëpp ak fu ngeen mënti nekk dem dëkk bu ñu naan poloñ euh, nuyu fa Mami booy ak njabootam Euh, di ndokkeel itam waa résidence Le Baron nekk fii ci euh, Lacrose nga xam ni vacances yi euh, daanaka boo fa demee di nga féex di ndokkeel itam taalibe cheikh yu mag yëpp bokk na ci ajaaru xëye jaxate waaye fàttewuñu euh, sama yaay yaayu tabarak mhm. Mouhamed yaayu Ndey Xadi tata Ngoone Jonn nee na moom euh, lépp loo wax ci Maodo rek xolam da ciy sedd donc ñu ngi koy ziar bu baax euh, ajatu Ngoone Jonn di ziar itam madam Ba Anta borom maison Brocard Tana Chic di nuyu itam mami ak Bintu ñoom nee na ñu nga bàyyi français bi ngay làkk parce que France la ñu nekk <laughs> mais bon kii kenn mënalu ko dara nee na presse presse bu jigéen prince la man nag wax naa ba sonn ne ko presse bu jigéen princesse la mais néanmoins comprendre ngeen li nga xamante ni yaa Oustaz mu ngi koy wax donc madame Ba euh, borom Tana Chic euh, ak maison Brocard Paris ñu ngi koy ziar bu baax Omar Cheveux itam euh, inconditionnel la ci jotaay bi ñu ngi koy ndokkeel Isma Ndiaye Baye Binet maak moom ñoo bokk grand place moom it ñu ngi koy ziar bu baax Serigne Modou Guissé moom jëwriñ la mooy sunu buntu daanaka ci sunu sang bi dem di Chérif Abdourahmane Fall Tilala ñu ngi koy ziar bu baax di ko ndokkeel Pape Jean ko lool. ñu ngi ziar itam Jatu Buso euh, fàttewuñu itam Caba euh, Diagne madame le maire ak képp ku ànd ak ñun sànq ba tey ci télévision Futur Média euh, Birane Samb laay nekk Parcelles Assainies unité 26 moom itam ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram c'est la part de Ndeye Fatou kan waaye di ziar itam Modou Fall mu ndaw voilà Modou Fall mu ndaw. Euh, ñu ngi koy souhaiter moom itam un bon anniversaire xaw ma nag papa lu ko daal ba mu tuddee oustaz bii doom <laughs> mais bon yàlla na mut faal moomu raw turandoowam ci xam-xam ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak euh, wér yaram Dipi Yacine Henriette yow it ñu ngi lay ziar bu baax yaayu major euh, di bég ci moom fàttewuñu itam Nathalie madame Thiam chéri momo si di ziar itam Rose sët la ci Cheikh Dethialaw gaynde Ngourane fàttewuñu Rama Soumaré ak toute la famille di ziar itam euh, Fa Vivi la reine de la la lionne de la bande FM ala Càmbour itam euh, ñu ngi koy ndokkeel Lat Diop ñëw na. mooy jékki-jékki rek sama xel mi ñëw ci ñi ñëw ak ñu ñëwul ñëw na natt na ñëw na nattul. <laughs> nee naa <laughs> ñi ñëw. Uh-huh. Uh-huh. bu doon am président. Uh-huh. Lat président bi. ah bon. fooy def Aziz Ndiaye. la la dafa teel a ñëw. <laughs> waaw la ta njëkk a ñëw dégg naa li lim la jox sax daanaka da nga ba mu jeex <laughs> balaa inauguration bi. <laughs> xam nga Pape Lat Diop fi mu ñëwee li tax mu baax mooy. Mhm. moom moom dafa teel a ñëw comprendre jamono xam nga lu ma wax. Mhm. lat nante la waaw waaw. lat xanaa xamoo bu nekkoon candidat ci présidentielle yi xale yëpp votel ko ndax nante la booy town la. fii la dëkk. Lat Diop Lat Diop dafa teel a ñëw. nante la. ni ma bis boo ko dëgmalee bu desee 15 jours. <laughs> wax ma ko ci lañ war ñëw. ndax yi ngay def day bari. <laughs> dëgg la mais Pape Lat Diop. <laughs> Uh-huh. sonn ci bis bi. macha allah macha allah. ni ma nag coono bi may daj. da nga ko jar nag tax. da ko jar sa taxawaay. da nga jar. yëkkati teraanga ju baree baree bare baree alaaj Pape def ko ci bis bi. da nga ko jar moom ñi njëkk ñëw moom Lat Diop ci la bokk. Mara Dieng ñëw na. parce que tey wóolu na ma biroom di ma félicité ci inauguration bi waaye li ma ci tegal mooy ndax oustaz jox na la sa wàll ma jàpp ni rek Mara Dieng ñëw na euh, alaaji Mara Dieng taalibe Cheikh. Mara nag pap <laughs> mais duma la nëbbu nag. xam naa daal daf maa jox tey xaalis ne ma mooy. <laughs> fekk ma banque aw lu ma jox sama doom doomi ñu lekk oto bi amul essence ma jël lépp jëndee ko essence vraiment. loo jëndee essence. ma Mara jox pour yow. pour daara ji waaw pour daara dara. riba saako dërër. riba du ci Cheikh moom nit ku baax la. li may faral di wax yuusu la ñu xamal nu ñu koy def rek waaye Mara Dieng it eh, yàlla na taxawaayam yàgg di ndokkeel itam Adja Touré mu ajatuma joojo ñing nee na bég na ñu ngi koy ziar bu baax Mami Fa njaay nag madame Ba. moom mooy euh, daanaka présidente fans club bu duo bi Pape Cheikh ak Oustaz Modou Fall ndax bu takk tàkkusaan jotee ci euh, jeudi bi dafay teel a def li muy def bu ko defee mu mën a toog se euh, concentré wu seetaan midi plus bi Kia moo ñu fekk si pour jox ñu question yi nga xamante ni internet yaa ngi ñu ko yónnee sànq ba tey ci compte yi nga xamante ni am nañu ko ci réseaux sociaux yi Kia ñu ngi lay nuyu di la ziar béggati ci gisaat la bëgg bi ci man la ëppee El Hadj Pape di la nuyu di la ziar ci guddi àjjuma bi di nuyu Oustaz bu baax di ko ndokkale ci li nga xamante ne moom mooy bësam bi. paase Oustaz yaa ngi réeré. <laughs> mais Oustaz kii yaa di nuyoo rek ngay réer mais Oustaz bi sa problème. ba pare di doser quoi Oustaz dafa dafa changer oto. mais sànq bi kii yaa di liggéey si. oustaz ba ni muy ni muy def volant bi sax da koo changé naan nii mais kii dina mbëkk miiru Youssou Ndour yi ndax kii amee <laughs> tey di nga xam fooy dugg boo demee kan fay fekk dina caabi buntu caabi buntu bi <laughs> mais kii yaa lu leer laa la wax bu la góondeeg otoom man balaa jeudi prochain ma indi oto bu bees. man moom rek laay topp fi mu ne nii. kii yaa ngay andi wala. mais man sama oto bi kii yaa la pap <laughs> man daal sama marque oto Kia la oto bu bees pël zéro kilomètre. yàlla baax na. mbaa jàppoon ni 10 millions laa ko jëndee. yàlla baax na. da nga naan 15 di teg di teg di teg di teg ba doyal. Kia damaa ànd ak Pape Samba gis da ngay gaare oto ba rafet te seer lool waaye xam nga lu ma ci teg Pape Samba woon ma téléspectateur yi dama koo ŋóobi nii laa def oto bi. oto ba rafet te seer di ma ne oustaz bi nekkoon Modou Modou faf ñibbisi moo fi gaare lii <laughs> mais macha allah yàlla <laughs> na yàlla lafal cat yàlla waxu kenn dara ah yàlla mën na lu ne. yàlla yor <laughs> <laughs> man dinaa wuti Kia léegi nag Kia sànq ba tey yaa ngi ak internautes yi et je reste convaincu ñu ngi kontaan loolu ci waxtaan bi euh, ñu ngi commentaire mais itam bëri na ay question yoo xamante ni <coughs> la ko. effectivement El Hadj Pape yi ñu ngi réagir bu baax ci li nga xamante ne ñooy suñu plateforme digitale yi. Mhm. Euh, Midi Plus nag dafa am ñoo xamante ne c'est des fidèles de Midi Plus duñ ko duñu ko raté mu que ce soit mu li nekk matin bi que ce soit li ñuy def li nga xamante ne. Mhm. moom mooy guddi àjjuma bi donc question yi bari na trop. Mhm. ñu fas yéene koo jébbal oustaz benn par benn mu wax ñu li nga xamante ne moom mooy réponse bi alors ñu jàll ci li nga xamante ne moom mooy première question bi kii nag El Hadj Paa mu ngi mu ngi lay nuyu mu ngi leen di nuyu sax mu ngi laajte ndax ay seex yu jigéen wala ñaari euh, sër yu bokk ndey ak baay mën nañoo bokk benn jëkkër. <laughs> waxi dof <laughs> kon nañ déglu wustaas bi rek <laughs> comme man suma ci tontoo ñu ne awma xam-xam nitu àddina laa maa ngi ci baalu Viviane bi xëy na wustaas bi bu ci waxee yéen di ngeen ko gëm waxi dof astafurlaa noppi sax tey damaa feebar mu ne ñaan ñu bokk doon ay jumelle ba pare di sëy ah réew mi mën nañoo laaj de <laughs> jërëjëf jërëjëf soxna Kiya ci laaj yu am solo yi. <laughs> të ñu ngi la ciy ndokkeel bu baax yow itam. ci sa taxawaay ci télévision Futurs Médias waaye sa taxawaay itam ci émission bi nga xam ni moom mooy Midi Plus. mu mel ni Pape dafay laaj ndax ñaar ñu bokk ndey ak baay mën nañoo bokk jëkkër déedéet mënul nekk. li mën a nekk daal mooy nga takk jigéen mu sëy ak yow ba génn àddina. mën nga dencaat rakkam. comme li dal Seydina Ousmane. ok ok. mën nga dencaat rakkam ci bu fekkee bëgg nga ko. bu dee dee am na ci. mais imma boole leen nag ci benn buum. ñu bokk ndey ak baay. loolu moom. baaxul kenn du ko def. ok beneen question. loolu defe naa leer na. leer na naa ñu El Hadj Pape liñ naan cour clair concis alors ñu jàll ci li nga xamante ne moom mooy deuxième question bi. kii nag moom nee na oustaz dafa fase jabaram mais à moins de deux mois mu gis ci nga xamante ne ci réseaux sociaux yi gis na jabar ji dañ koo takkaat muy laajte ndax takkaat bi ñu takkaat jabaram bu njëkk bi valable na wala. Ah, sëy amu fa. kiyaa nawle dafa foor <laughs> nawle dafa fort ñii ay question yu fort lañu la ñu joxe tey mu ne ci restaurant. bi muy liggéey. non non mu ne dafa fase jabaram. Ah, dafa fase jabaram. waaw waaw. Eh, ci moins de deux mois. même pas deux mois. même pas deux mois muy défilé ci réseaux sociaux yi ba gis ne jabar ji takk nañ ko. ah matul trois mois genre quoi même pas deux mois voilà exactement d' accord d' accord léegi Pape. Mhm. ci charia. Mhm. soo fasee jigéen pour nga perte ko définitivement. Mhm. day fekk ndaw si distance bi nga ko fasee moom ci boppam mu toog ba gis fi ñetti réglam su toogee gis réglam sangu toogaat ba gisaat réglam set sangu toogaat ba gisaat réglam set sangu ku ko ni dama laa bëgg bu ko neexee dem sëy kon na ci biir deux mois yi ndaw si gis na réglam mais su fekkente ni bii gisu fi ñetti règle yu mat mu yàkkamti wala defante tax ko duggaat ci beneen sëy nekkul ci buum kenn du takk sëy ci kaw sëy te su boobaa ci sëy lañ ko fekk kon bu ñu takkee sëy bi ci kaw sëy lañ ko takk te loolu dafa bari ci jamono mm-hmm. da ngay gis jigéen joo xam ne day divorcé iddaam jeexagul mais dafa bëgg dafa bëgg a wax jëkkëram ni ko loxo bu ma bàyyi loxoo ngi taxaw la ñuy wax xaw ma. Ah. loolu la bëgg a wane. loxo bu ko bàyyi loxoo ngi taxaw. <laughs> léegi nag loxo loxo bu ma bàyyi loxoo ngi taxaw day fekk sa loxo yi it set. d'accord. mais bu fekkee say loxo setul nga bëgg a defante bëgg a wan sa jëkkër ni ko da ngay sëy sëyu faj mer. Mm-hmm. te bap sëyu pap gis nga sëyu faj mer. Mm-hmm. délai bi six mois la. Ah, ci mer ngay mujj. bu guddee ba gudd douze mois la. Ah. boo ca góorgóorloo un an et day tas. ci mer ngay mujjee sax lan mooy sëy yu faj mer bàyyi nga ma gaaw naa jaraat duma fi ne di xaar mais loolu pap amul sens patienteel boo divorcé toog dix ans sëyoo bu mu la jaaxal patienteel sa jëkkër a ngi ñëw mais damay tas say say tas damay tas tay say tay ku ci ku ci jugul ci divorce yu bari ngay dëkk bu la kenn yëngal ba tax nga bëgg a sëyaat te sa heure sëy jotugul mm, mm. mais tey ma naqaral sama jëkkër wan ko ni te kat seen sëyu faj mer yooyu danan ca sina ba sina ba sina ba sina ba sina ba nga jàpp ni mm-hmm. waneel la xew mi yëngalal la ko fii anytime fii <laughs> bongo fii te du dem délai bi six mois la <laughs> <laughs> photo wu fii esthétique fii sonal ñi lay maquillage ñu rëdd rëdd rëdd ba jàpp ne ñoo ci ne. te sëy bi du dem. alhamdulilah dëgg la de. sonal téyeer yi ñu daami bay bëgg dee. bilaay xaadim kase. te dañuy fanaan palaasu xaadim kase kat buñ dee sëy ñoom ñi ñuy takk. vingt 22 heures lañ fay xala dem fële Cambérène. fatt teer bi daanaka ba 13 heures. mayoo ko jàmm sonal ko. dem ci Kentra <laughs> mami Ken toogaanu Kentra ba fajar. ku ne ñu woo la sama dàll yi damaa xat. wallaahi sama hôtesse bi lii woo sa xarit yi ñoom itam ñu am jot bay bëgg di xam nga ñi am jot ñëpp bëgg hôtesse bi. Eh. foo fekk ñi am jot am temps ñooy soññee hôtesse yi. koo ci takk day jaay band bii la ñu jël. waaw naan dañuy fenal naan nii waaw bii la ñuy foto. ak naan ku bari doole yaa bari doole. bàyyi leen sa yu faj mer. dee leen sa yëg ku ngeen nopp. sawla sawla sawla wut si nab kat lu ne nga dugg ci te doo toog ci sëy bi dégg woolu woo Ismaïla Mbaye mu ñëw ci xew bi ak Modou Mbaye <laughs> ak Modou Mbaye yow téyeer bi la ñawal bi ngay sëy boo tasee léegi boo demee ca atelier ba fekk fekk fa sa desu ñaw bi <laughs> ci ci diir bu yàgg sagar bu sagar yëpp a ngi ca téyeer bi sànneeguñ ko nga tas dèjà. macha allah Pape loolu boo patienté woon ba gis ki nga bëgg. lu métti hmm. métti da ngay toog ci sëy bi. wallaahi Sénégal ngay gis ko publicité mariage am. Hmm. encouragement yi jip hmm. yàlla ngeen soqali ko ne asamaan ak te ku te bu ñu amee problème ku ñu waxal ne la entre nous. waaw entre nous dem na. divorcé naa ne bugguma ko ko yëg parce que. divorce bi sax dañu koy nëbbu ndax pas encore te tas nga du lay nëbbu ci tas gi. ay. bàyyi leen ñu leen di fase ngeen koy nëbbu ak bon tas na mais genre amul genre tas nga. lu tax mënoo leen nangu ni tas ngeen ñu leen fase ngeen ne fii di nëbbu seen tas gi di dem marché naan nii. ba waaw man bii moom mën na maa rey. ba pare dañuy tas ba pare di continuer di di di di di esthétique di bind ay façon wax yoo xam ne day mel ni yaa ci sëy madame Bonheur lu man tas nga waaye duñ la wax tas nga. waa léegi jeex na léegi jeex na wul astafurlah astafurlah. Sénégal dafa bëri ñun fase ñu ne fi di nëbbu fase gi di semblant naan tas naa mais xam nga bëgguma Aïssatou yëg ko parce que Aïssatou xam nga rek ay waxam man attanuma ko y a des gens yoo xam ne dañuy expliquer non non parce que man sama non non non ba ñu pap xoolal ba ñu tasee nawet bi duggagul <laughs> dëgg daanaka une semaine après seen de ca koor ga lañ tas un mois après en time bi la ñu tas donc question boobu. yéen ñi tas il faut ñu defal leen publicité de. <laughs> mais jeex na. tas ngeen lu ngeen ciy nëbb. waa Pape ñii tas di ko nëbb du ñu wax ak ñoom. fase nañ leen bul ma xool. bu leen rus ci sañse yure yi ngeen sañse woon seen yére la yéen ko moom garde leen ko mais tas ngeen. ak li ñu any time. waaw. alhamdulilah seen vidéo yi ngeen partagé woon ak wax yu yi ngeen doon wax. dëgg la maa ngi moom ba yombal xiyam. moo tax moo tax moo tax wax baaxul. baaxul wax baaxul. fëgg dënn baaxul. ah waay Pape daal ñii. fëgg dënn baaxul. moom daal kun ci fase. balaa ngaa seeyaat bàyyil ba idda bi ñu fase la nga koy nëbbu di te kat Pape ba ñu tasee boobu ba ñu tasee ak ba ñuy tas réew ah, kàddu bi. damaa xam ne tas di ko nëbbu. waaw mais ah, garaawul xam ay. il faut ñu def. déedéet <laughs> eh, ñi tas laa bëgg lim. tas nañ ah. naa bàyyi noonu. safurlaa li yàlla na ma jig sax yàlla waxul kenn dara yàlla waxul kenn dara eh, damay woo sama benn yaay fifita maa fifi kaay jël si ustaas bi <laughs> yaa ma ne woon ñaanal nga ma parce que bëgg nga ñu ba mais léegi foog faut nga séparer ñu parce que commencé naa sonn jërëjëf loolu leer na eh, ci réponse ci question boobu internet bi joxe eh, soxna Kia. alors El ah, ci li nga xamante ne moom mooy. moom mooy troisième question bi alors kii nee na moom dafay liggéey ci restaurant. Mm. te restaurant bi muy liggéey dañuy jaay alcool muy laajte ndax loolu bàkkaar la ci moom oustaz. jërëjëf soxna Kya ci laaj bu am solo boobu kii nee na Pape dafay liggéey ci par exemple restaurant. Mm-hmm. mais bi muy liggéeyee dañuy faral di service sangara. Mm. eh foofu de kon du chez Kacha. moo Kacha jam ñaajo bi yëg nga ni ibbiwaat na. fa lay commandé pizza. kooku de Pape bis xam nga bii ci almadi moom a gën a jege. mais kooku sañul jaay sangara. wallaahi iliman lam billaahi man fa lay commandé maam am tooroo dola man fa lay commandé pizza ba jam ñaajo ñu livré ma ko mais pap ay maamam ay nitu yàlla lañ ah, ok kooku du jaay sàngara wax ma keneen léegi nag boo dee liggéey yow ci restaurant ñuy jaay sàngara yow jullit bi amoo droit liggéey ci restaurant boobu ah bon mais dañuy daan doole nag seddale pap xola non non service sàngara ci table hmm. servi sàngara ci table hmm. fekk ñu toog nga servi leen sàngara hmm. yow ak kiy jaay sàngara si yéen a tolloo bàkkaar yaag boroom restaurant bi luñ bindal borom restaurant bi ci bàkkaar dañu la koy bindal yow ñu bu dee da ngay daan sa doole mais daan doole ci lu sàngara daa aram jaay ko daa aram wàccee daa aram ah yëpp ko daa aram dimbali ki koy wàccee daa aram sëf ko ci conteneur yi wàccee ko daa aram romb ñu koy wàccee nga may leen doole daa aram fekk ñu koy wàccee nga may leen ndox ñu naan daa aram yaa ngi romb almadi bi yëpp ci <laughs> di may oto yi pour ñu jàll ndimbal boobu nga ku yab sàngara rek nga may ko mu dévier daa aram wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum abaatam lan la may doyee alo na ma bàyyi ah mu ngi may woo àggalil yaaw saas yaa ngi dégg ba waaw waxal àggalil àggalil maanaam ci sharia abaa lan la lan lan nga may doyee te ma nekk en direct ci télé bi <laughs> waaw waxal dama lay raccrocher au nez. yaa euh, <laughs> <laughs> abaa dafa gëj a génn ci télé bi nag moo tax ku génn télé bi fan yii da lay woo. dafa bàyyi. fi ne bàyyi na TFM waa RFM la léegi. dama kaa gëj a gis sax. waa RFM la bàyyi na TFM Pape Samba la xuloo doo leen jubóole. lan dañoo xuloo xuloo bu rëy. ko dugal dugg na TikTok. non lool moom si xuloo nañu xuloo bu rëy. An lañ ci yaakaaroon mu jubóole leen Pape An talul dara. am nañu yaakaar ci yow. Pape loolu yëguma ko. ah xëy na nga mën ci dara. sama ñaari xarit lañ de. ah oui ñoom ñaar ñëpp a baax nag. kii maag moom ñoo bokkoon yëmbal. Mhm. kii. kenn la ci man mhm. loolu moom Pape day jeex suba suba. ñun de fan yi dañoo bëggoon def délégation sax dem jëli ko pour mu ñoo def def si kii ba eh, eh, nu mu tudd yi am par ngoon. seetu bi non non non Pape loolu moom. délégation daal la ñu bëgg. yow daal wax ma loolu ci loxo kan la ne. waaw suba. Mhm. xam nga àjjuma la. waaw ci bisu àjjuma bi laa leen di boole. incha allah te mun nga ko jëli mu reprendre émission yi fii. wax ma wax ma wax ma ki yor loolu. non bul wax ki yor loolu abaa kay ngay ñaan njëkk pour. mu ñëwaat abaa naa ko. nga ko. mën naa koo gérer kon mën nañu am yaakaar ni fii ak leen di abaa dina dellu si waat ci télé bi. dama leen ci kattanu suñu borom léegi dana dellu si. Oh. Ah, waaw Pape ñun kat li Pape ñun suñu mission mooy yéwénal diggante. dëgg la de ñun sunu mission mooy fekk diggante bu ñagas. ñu mm. taxal ko dana liggéey si de. lii yëguma ko xam nga ni Pape. mais abaa rek nag keneen ku dem bu mu ñëwaat keneen ñëwaat ah. falaayam sinon dinaa def ni Mbappé. <laughs> ne moom ak diw mënunoo bokk. <laughs> moom Pape dinaa ko gérer moom. mu ngoog donc Abba ñu ngi koy ziar bu baax ak euh, mon ami Lom beneen question ñu bàyyi la kii yaa nga jox ñu ko. alors El Hadj Pape ñu dem ci li nga xamante ne moom mooy dernière question bi. Hmm. kii nag moom oustaz dafay laaj mu ne depuis bi mu nekkee xale ba tey dafa muuru ibaadu donc moom mu dugg ci sëy bi jëkkër ji ne na dindi li nga xamante ne moom mooy voile bi mu ne mu laajtee autour de autour ñu ne ko lu sa jëkkër bëgg rek wala loo xamante ne dana faire plaisir à ton époux dagan na muy laajte loolu oustaz lu ci lislaam wax. jërëjëf kii Pape xam nga loolu ay wax la rek lu sa jëkkër bëgg dagan na ci yow. Hmm. bu sa jëkkër bëggee lu neexul yàlla nag. yow da ngay muuru ba nga nekkee xale ba niñ la koy mayee muuraay mi ngay def yàllaa la ko sant sa jëkkër bëggul muuraay nee ko may ma sama baat ma continuer li ma yàlla sant parce que yàllaa la sant sa jëkkër sant la da ngay xool li la sa jëkkër sant ngay def walla li la yàlla sant ngay def yàlla moo sant jigéen pour mu muuru sa jëkkër bu nekkee manquant gu doy ni nag naan da lay bàyyiloo sa muuraay kol gi yàllaa la ko sant parce que yàlla moo ne xul li azwaajika wa banaatika wa nisaa il muminin yudniina alayhinna min jalaabibihinna yàlla moo wax Seydina Muhammad ni ko waxal sa njaboot gi na nañuy muuru ñuy jël kol di nëbbu seen bopp waaw yow nga muuru ñu may la boroom kër mu ne la man muuraay góndiw ma tegal cheveux naturel nga bëgg lu neex sa jëkkër bàyyi li la yàlla sant yow respecté woo yàlla Mm-hmm. nee ko may ma sama baat te boo ma fasee du ma ko nëbb. bon mun na ko bañ ñaan baat mais mu bañ a mu ne ko loolu mënul nekk. pap mm-hmm. am na góor ñoo xam ne lépp lu nu bëgg seen bakkan lañ cay gar. Mm-hmm. te foo fekk ki naan dindil sa muuraay ay meesa ko gënal muuraay am na yuñ dul négocier de. am na ñoo xam ne da leen di jaral pap nga wax ñu ni la. sama guddee gii fi ma ko teg mooy damay seeti keneen koy def li ma bëgg. xam nga jigéen dafa gaaw a jaaxle am na jigéen ñoo xam dañoo gaaw a jaaxle. dañ lay wan ni li ma mënta am ci yow naa ko wuti ci bitti. mais am na ci jigéen ñoo xamante ni ni góor mënee euh, am seytaane ci jigéen noonu la góor euh, jigéen am na jigéen ñoo xam ne seen jëkkër seen seytaane la. dëgg la ndax comprendre lu may wax. dëgg la loolu day am day am ci ñaari côté yëpp day am ci ñaari côté yëpp mais nag Pape lépp luy santaane yàlla. Mm-hmm. bu ko tolloole ak santaane doomu aadama bakkan wala sa bakkanu borom santaane yàlla. bu xasee ñëw beneen santaane existé tul mhm. yàlla bu santaanee bu nit santaanee santaane nit day xaar. Mhm. yàlla moo santaane muuraay. Mhm. kon toppal li la yàlla wax te bañ a topp li la sa jëkkër wax. voilà loolu defe naa leer na soxna Kya. Elhaj Fall li ma nekkoon question yi. non dafa tuuti nag. ah yàgg ak yow ci antenne bi. loolu dëgg la moom ah, mais prochaine fois incha allah Elhaj oh. ngi lay gërëm kon sax na kii ñu ngi lay jaajëfal bu baax mhm. kër bu baax. incha allah. amiin. incha allah ndax moom dafa baax. Mhm, incha allah. li ma xam ba xam ko daal mooy lim ñu wan. Mhm. ku ko am am soxna su baax. Mm-hmm, mm-hmm. yal na ko yàlla may borom kër bu baax. amiin amiin ci darajay Seydina Muhammad. amiin amiin. amiin allahumma amiin oustaz. amiin alors oustaz euh, alors El Hadj li nga xamante ne moom mooy question yi comme ni ma koy waxee toujours. Mm-hmm. alors ñu ngi suñ euh, suñ plateforme digitale yëpp c'est disponible. mais gars ku nekk ak ma naan laaj yi dafa jeex xam naa laaj yi intéressé wu leen mais yow miy joxe laaj yi yaa leen intéressé <laughs> am nañu beneen candidat bu taxaw te moog jabar jee seetaan de. te xam naa jabar ji day jékki-jékki rek ngadd ko Ndiaga Fall rek leen <laughs> nga naan ndax question yi dafa jeex pour bëggoo xoolaat kii yaa c'est quoi ton problème. waaye daal El Hadj mënti doon yow bëggal rek. <laughs> yow bëggal rek. <laughs> Euh, euh, am gars yi nag ñu ngi laaj ci yére bi nee nañ yére bi lañ bëgg. ban bi nga sol. bi nga sol yow. sama bi. ah waaw Moussa dafa tàng rek grand boubou la àndal. Eh, gars yi nga koy laaj pour màggal gi de. <laughs> grand boubou la àndal de mais tàngaay bee tax. ma sol lii et tey sama yaram neexul. <laughs> waa Maroc loolu moo tax ma oyofal ko rek. ah nii nga koy oyofal sama yaram neexoon. bi <laughs> dama koy teel a lijjanti. ñoom na fi waa Maroc yëpp nee ñëre bi daal bëgg nañ ko. Ah, ci euh, màggal moo koy defar. incha allah alors El Hadj Pape li moo nekk li nga xamante ne moom mooy question yi comme ni mu ko waxee rek. Euh, mm-hmm. euh, suñ plateforme digitale yëpp c'est ouvert donc mën ngeen continuer di poser li nga xamante ne moom mooy seen question. Mm-hmm. alors tey nag El Hadj Pape je suis habillée par ki nga xamante ne moom mooy Faslim borom pan pan chic donc moom day def lépp loo xamante ne ay tenues la mm-hmm. donc même ba ñu ngi koy gërëm bu baax mu ngi nekk fële nga xamante ne moom mooy Liberté 6 extension donc elle est joignable au 77 538 95 43 El Hadj Pape di profiter de l'occasion di souhaiter joyeux anniversaire ki nga xamante moom sa fans la moom mooy Omar borom Sandaga alors tey anniversaire am ñu di ko souhaiter bu baax joyeux anniversaire Omar ki nga xamante moom mooy Baye bàyyi nday El pap Pape eh. alors ñu lay jaajëfal li la jox rendez-vous jeudi prochain incha allah incha allah jërëjëf soxna Kia ñu ngi lay gërëm bu baax fàttaliwaat leen ni mën nañu la fekk ci suñu site internet di www.igfm.sn ndokkeel Awa Tamaro euh, depuis euh, New York ak euh, mon ami Papa Ndiaye voilà mami ma ma xama maa ngi leen di béggee bu baax et puis euh, di ziar euh, Oustaz Pape Anne mu ngi may fàttali sànq takkusaanu borom Ndiassane di fàttaliku euh, Serigne Pape Euh, Abdou Kéman Kunta euh, programme boobu nag euh, ñu ngi koy amal samedi 16 septembre ca Thiès di programme bu am solo tàkkusaanu borom Ndiassane le 16 septembre ca Thiès salle Clément fay donc affiche bi bu fekkee disponible na Pape Samba ñu won ko téléspectateurs yi ndax oustaz Papa nag ñu koy fàttali léegi nii mu ngoog di tàkkusaanu borom Ndiassane Euh, fàttaliku euh, Serigne euh, Pape Abdou Kéman Kunta di programme bu am solo samedi incha allah ca dëkk bu ñu naan Thiès dëkku Adjaatina Diouf ma sama chéri donc ñu ngi leen di yëgal programme boobule. Demba Gisee am na laaj bu mu yónnee waaye xam naa dañu koy lepp rek ba jeudi prochain Demba borom Mauritanie ñu ngi koy ziar soxna Fat Bintu mi nga xam ne ni suma bàjjan la ca Ndar. Euh, mooy def si kër yu neex yooyu. Mhm. Euh, sànq turandoom la ñuy waxtaanee. te moom dafa bokk ci inconditionnel yu euh, suñu duo bi donc ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér yaram di ko ziar di bég ci ni mu àndee woon ak ñun ci télévision Futur Média yow saas ñu ngi lay gërëm. jërëjëf alaaji Pap maa ngi am sama benn soppe euh, sëriñ xaadim borom jinne yi sëriñ xaadim borom jinne moom hmm. itam sa soppe la xam naa du ñàkk bis nga dalal ko ah loolu mënul ñàkk ah. <laughs> parce que temps yi jeudi bi laa jël di dalal borom xam-xam yi mais sëriñ xaadim borom jinne yi alaaji Pap foog mu ñëw keroog keroog soxna Ayda Saaliw ñëw na te soxna Ayda Saaliw moom borom borom mi mbir la mhm. mais euh, boroom jinne yi moom il faut mu ñëw ñu wax ak moom <laughs> jàkkaarloo ak moom <laughs> nee naa ko nag jinne yi foog nga wane ko. ah oui gërëm <laughs> bu baax. Eh. mboolem soppee boo xam ne yaa ngi jàkkaarloo woon ak Midi Plus. Mm-hmm. di la ñaanal yàlla bu baax yàlla may la gudd fan. amiin yàlla may la wér. amiin yàlla sàmm la. ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm. yow boo dee am jàmm rek sunu xol yi di féex. amal jàmm wéral eh. guddal fan alaaj Pape. gërëm bu baax nag Pape euh, suñu yaayu bopp Adja fay sàll ah sëriñ Xaadim Bousso mhm. moom itam ñu ngi koy nuyu mhm. di sunu xarit di sunu soppe di suñu sëriñ mhm. di borom xam-xam nekk imam ca New York macha allah moom danoo bokk yaay jun ta seddoo muy Adja Marème Faye Sall nga xam ne ay doomi boppam lañ alaaji Pape fier nag lool ci moom ñaanal ko yàlla yàlla na ko yàlla dolli sutura Pape gërëm nag sama xarit ministre de l'intérieur Antoine waaw xam nga moom moom moom ku ne xam ne sama digganteek moom eh, moom da nga fidèle ci moom dama fidèle ci bëgg ko te yàlla rek tax ngir cofeel ak yëg-yëg boo xam ne dox na ci sunu diggante ñaanal ko yàlla bu baax moom Antoine Diome yàlla na ko yàlla dolli dëgëral neex mooy euh, bëgg nit ba noppi mu bëgg la fonk nit mu delloo mais Pape looloo neex yàllaa ngi dogal ci mbaaxam ñi ma sopp ñëpp samay soppele wallaahi wallaahi loolu moo neex ci xol xam nga man su ma la bëggee te bëgguma la ma lay ba dëgg la de man moom da nga may bëgg ma bëgg la dëgg nga yëg ma ma yëg la kon yàlla na ko yàlla dolli sutura allahumma amiin gërëm bu baax Cheikh Mamour Issa mm. alaaji Pape seex Mamoun Issa délégation bu am solo la yónnee. kooku dafa baax. ci sunu bis bi. bàyyi nga ni sama yaay da koo bëgg. nga ni la sama yaay da koo fonk lool lool lool sama yaay dafa fonk seex Mamoun. waaw Cheikh Mamoun Issa Diop. Mm. Pape dani ma bu fekkul woon ak sama ziar bi tombeeg le treize. Ah. may ah. ñëwal sama bopp pa Kébémer. wallaahi waaye Pape yabal délégation boo xam ni waxuma la mbaax gi nekk ci ñoom. Mm-hmm. mais yëg bi ak yar bi. Mm-hmm. Mm. kenn amul fayam. wallaahi yal na ko yàlla yokk dëgëral alaaji Pape. gërëm sëñ Bas Xaadim Awa Ba. Mm. sunu soppee bopp. kooku dafa yàgg baax. moom bi bi bis bi nekk bi ñu nee suba la bis bi. Mm-hmm. la ma woo téléphone ni ma ñaata mooy doy ci ceeb. ma ne ko Abdou Aziz Alé Ndiaye daf fee wàccee ceeb boo xam ni. Mm-hmm. xam naa ne waxuma la inauguration bi mais dong yii njëkk a ñëw sax ci la ñuy añ. Mm-hmm. mu ne ma nag comme Aziz joxe na ceeb bi. wax ma ñaata nga bëgg ci xaalis. ma jox la ko. ma ne ko Mbàkke Bàlla loo def ànd nañ ci. ndax gor bu nu ko nee loo bëgg. bu waxee somm doonatul gor. waaye paap la mu def ca bis ba moom sëñ Bass Xaadim Awa Ba mm. kenn xamul nu mu toll macha allah kon Mbàkke Balla yàlla na yàlla guddal fanam allahumma gërëm jaw imo sa mm. xaritu bopp eh, jaw kooku ak ak xaritam bi Ale Fatim Ale Fatim Ale Fatim <laughs> saa yoo ko tuddee nag eh, ndaak mu maam Seyni. xol bi day seet. mi ngi noonu alaaj ay nit ñu baax nit ñu tedd ñoo nekk ah, ci réew mi. Ah. sa vrai que Sénégal dafa bëri ay nit yu am valeur. mais Pape yenn saa yi nga ni réew mi yàqu na. waaye yàquwul de. ñooñu ñooy dalal sa xel alaaji Pape ñooñu seen seen coow bëriwul seen wax bëriwul. kenn du leen dégg ci dara kenn du leen dégg ci dara wallaahi wallaahi fu nu la fekk safoo la. réew mi dafa bëri ñu baax sagoo la. Ah. yëkkati teraanga di la ko di la ko defal. wallaahi wallaahi wallaahi Pape mënuñu lu dul gërëm leen. Mm-hmm. li ma wax Abdou Aziz Ndiaye barki démb ma ne ko réew mi tollootul mhm. ci di def sa teraanga fenn ba pare di fa dégg lu la naqari nit bu la defalee teraanga da nga koy gërëm ñun ku ñu defal teraanga ñu gërëm la ku ñu defarul tous ñu maandu ci yow ah oui of course ñun kenn ëpp ñu fu laak fayda c'est sûr c'est te kenn téléchargé wuñ nag déedéet déedéet indépendance totale lañ am yow Maodo rek moo lay jox sa connexion non Alaaji Malick ci connexion Alaaji Malick laa ne wifi bi man wifi Maodo rek Pape gërëm bu baax nag maître Dior Diagne eh, <laughs> avocat de la cour. pene yaayam la ñuy jooy ba léegi. nit ku nit ku baax. bëri valeur nit ku tedd. wallaahi. gërëm bu baax a baax a baax Babacar Ndiak. Babacar Ndiak. rek ko Abdou Aziz Alé Ndiaye la. macha allah waaye moom itam pap taxawaayam ci bis bi dafa rafet. ah def teraanga ju rëy. ñoom dañoo fekk Baye Alé li ki ne muy def lu baax. ñu ànd ci ñu ci ak Alaaji Pap moom moom nit ku baax la Babacar Ndiak. Mm-hmm. defal ñu teraanga yu réy ci bis bi. Mm-hmm. gërëm nag sa jigéenu bopp. Mm-hmm. Sala bu Iliman Lam. Eh. Hmm? kooku man man man kooku mooy mooy sama kii <laughs> sponsor officiel yenn saa yi ma ne ko bonjour Salah mu ne ma orange mu ne rek <laughs> ma ne ko barki borom Tuubaa dama lay nuyu rek <laughs> mu ne ma orange mu ne nga nam Pape Salah bu Iliman Lam yàlla na ko yàlla may gudd fan amiin amiin yàlla na ko yàlla may wér amiin amiin amiin amiin Pape gis nga gis nga gis nga nit ñi lay defal teraanga Pape nañu leen di gërëm. amiin amiin suur Mansour nee na. Eh. baadoo la rek ngay defal eh. teraanga muy guuxi lex naan dama ko yeeyoo. ku la defal lu baax nga wax ko. El Hadj Pape Sala. Hmm. barki démb bi may ngénte. Hmm. def na ci loo xam ni. Hmm. yaakaaroon naa ne le treize bi day nopp dëgg la waaye gis nga message am. teel naa ñëw. macha allah borom këram Eliman Lam noonu. Eh. Pape ñooñu nekk wax dëgg yàlla. mënuñu leen a bañ a gërëm. ndax defaluñ leen dara. ki yëkkati alalam di la ko dimbalee te yàlla rek tax te mm-hmm. ñaanoo ko ko mm-hmm. parce que nag pap mm-hmm. ñun duñu ñaan suñu soxla kenn du ko xam yàllaa ngi ñuy defal sutura. macha allah kon ku ñu yëkkati sa alal jox ñu danañ la gërëm. Mm-hmm. danañ la ñaanal yàlla. Mm-hmm. ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm. Mm-hmm. di gërëm képp koo xam ne teewoon nga ci le treize bi. di gërëm Cheikh Samb. sa xaritu bopp Cheikh sàmb moo yoroon micro central bi moom itam def fa taxawaay yu am solo. Cheikh Samb borom Makka gërëm Abdoul Aziz Ala Ndiaye. gërëm nag gërëm ak Baye Ndiaye. bàyyi xam nga moom itam suñu diggante ak moom ah ñoom Malick ah, Mbeng ñoom ñëpp ñu gërëm leen alaaji Pape mm. waa groupe bi waa xadara bi ah. ñaanal leen yal na leen yàlla dolli sutura mm-hmm. ci darajey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. gërëm nag suñu ñaari wayjur Pape eh. ndax lu nu am ñoom la la ma waxoon keroog ca bis ba dama leen ni balaa maa gërëm kenn gërëm sam papa mm-hmm. moo ma fayaloon ca daara ja sama yaay moo ko muñ ba ba lii fekk ko fi kon ngërëm yi ñoom ñoo ciy jiitu beneen bi ci des nag may sàkku ñaan ci Sénégal gépp ñu ñaanalal ma leen mhm. yàlla may leen gudd fan yàlla may leen wér gërëm maam Abdou bu njool fuuta mhm, mhm, maam Abdou bu njool fuuta maam dafa bëri soppe da ñëpp ko sopp bi ñu gisee bi ñëpp gisee photo yi dañu kontaan pap teewaayam dafa pap teewaayam dafa rëy ci ñun bëri soppe wax naa la léegi ma la suñu eh, bis bii ku ci eh. ñëw mm. jàppin bu bees lañ lay jàpp wallaahi boo xam ne di nga yëg ni sax ñun jàppee nañ leen nii kon nag ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm mm-hmm. di gërëm waa l'amiral bu baax ni ma ko mm-hmm. waxee woon mm-hmm. di gërëm képp koo xamante ni bi teewoon nga Boubacar nduur ñu ngi koy gërëm di gërëm soppe yi di gërëm xarit yi di gërëm am di jàmm yi di ñaanal waa Italie ñoom itam yàlla defal leen jàmm sa dëkk sama dëkku bopp ñoom itam def taxawaay am solo alaaji Pape yàlla na yàlla defal leen jàmm ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gërëm Amina Ñaa Amina Ñaa ak way juróom ah. di gërëm ab laay ah. ñoom pap ay soppey Serigne Mbaye Sy Abdou lañ. macha allah Amina Ñaa Ablaye Ñaa. Mhm. ñoom ay soppey Serigne Mbaye Sy Abdou lañ. am taxawaay lool wax dëgg yàlla. Ah. di jàpp ci bis bi. wallaahi wallaahi waaw mhm. di gërëm nag pap mhm. koo xam ne buñ tuddee daara sax. yow même buñ la waxul xam nga ne loxoom dugg na ci. Ablaye lay Ablaye Dia Sénico Sénico. Ablaye Dia dafa taxaw ci bis bi Alaaji Pap moom nitu daara la bëgg daara li ma la wax ci Lat Diop taxawaayu daara. moom dafa teel a ñëw. ni ma réew mi lu ñu fi sos bu jëmee ci alquran kenn duma ci jiitu. kon Ablaye Dia maa ngi koy ñaanal Sénékowam gii. moo xam biokadi la. moo xam fromage la. moo xam beurre la. moo xam zadida la. Eh. lu ci doon yàlla na ko ci yàlla defal lu kawe njortam. Eh. Euh, Pathé Ba seet ma ci rek. am na taxawaay lool alaaj Hadj seet ma ci rek Pape gërëm ko. monsieur le maire seet ma ci rek. <laughs> gërëm Ousseynou Gueye. mi nga xam ne Pape boo tuddee Ablaye Dia foog nga tudd Ousseynou Gueye. ndax diggante yi dafa am ñu koy rataxal. Mm-hmm. ni mu amee ñu koy yàq noonu la amee ñu koy rataxal. am na ñoo xam ne yàq diggante rek mooy seen métier. di jaar ci suuf di jaar ci suuf di ruube di seytaane di jaxase. oustaz bi baaxoon na ba fii. <laughs> man nag ku ma xam danga ma laale bant bu gudd. sama histoire longue date lay def. baaxoon na ba fii te boo ma wax fukk ma wax la junni. baaxoon na ba fii. <laughs> Ousseynou Gueye ñu ngi koy gërëm. du ma ni kenn bàyyee naa la ak yàlla xanaa ma soj. <laughs> mais émission bi dina jeex léegi mënuma wax. dina jeex léegi Ousseynou Gueye. Pape Samba te ngaa def ni nga defoon Aba du koy générique bi. ñu neex. <laughs> yaa ngi dégg kuy wër seytaane rajim na la jàpp. lu sa yoon ci générique bu jàmbur. gërëm Aline Diop. suñu xaritu bopp borom Thiès ñaanal ko yàlla yàlla ko yàlla dolli sutura. allahumma gërëm mbaa pap ñi ñi déplacé woo jóge France. surtout nag sa soxna may mën njoon sa sa staff ñi nga xamante ni ñoo lay jàppale xale yi lay dawal xale yi nga xamante ni ci lépp loo ne dañ ciy nekk ñooñu tam ñu jar gërëm la ñu yaawu saa. mais pap mooy sa staff bi la jege. mais pap xam nga ñoom. bi bis bi desee ñetti fan lañ ñëw. Mm-hmm. sol seeni tiset wallaahi yëkkati chaise nekk ci togg yi nettoyé togg service alaaji Pape sama sama rakk yi Abdou Aziz Fall Ahmed Fall bokk ak man ndey ak baay gën maa sonn ci bis bi wallaahi wallaahi sama xarit yi ñoom laabi Abdoul Aziz ñoom Cheikh Dia alaaji Pape bu ma limee ñoom Mot Sall wallaahi wallaahi ah ñoom Njaga Njaay Jamil ñoom Thierno Mansour ñoom Mot Diaw ñoom alaaji Pape Diop Abdoul Aziz Ndiaye Oustaz Omar Ndoye Oustaz Souleymane Diop Hadj Malick Mbaye Bolle Pape Samb mm-hmm. Abdoul Aziz Ndiaye Babacar Diop mm-hmm. Pape ñooñu ay wëla bëri lañ yoo xam ne dañu yeen woon bis bi def ko seen bisu bopp. Malick Mbaye Bolle. retour man de dañ ma tuddee Cheikh Bolle. alaaji Malick Mbaye tëj balaa may lu ëpp alaaji Malick Mbaye baal ma de. yaa dégg Pape. Mm. Mm. ñoom ñëpp ñoom mbay Sow. Mm. ñoom. <laughs> wallaahi damaa bëgg tudd Sèye Bolle. Pape Gërëm. Mm. sama rakk bopp. soxna Salimata Fall. macha allah ñoo bokk ndey ak baay mooy sama caatu yaay. Eh. waaye borom këram. amuñu fayam Mansour Fall. Eh. ak njabootu Pa Oustaz Fall. ñoom ñëpp ñu gërëm leen. ci seen taxawaay ak seen yëg-yëg. macha allah waaw Omar Cheveux. maa koy ah gërëm moom nit ku baax la. tey la ma envoyé euh, kii. non damay bañ publicité. ok garaaw wari. Mhm. waaw yow ñëw na daal man pap xam nga ñan laay bañ a publicité ñi nga xam ne lekkuma seen dërëm ba pare di tudd seen produit yi ma ko ah, def wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga man sama kàddu gi sànniwuma ko ci gratuit wax nga dëgg ñi ma envoyé <laughs> wari Omar Cheveux wari la ma yónnee tey ne ma bis bi fekkuma fi mais sama participation ngi nii. macha allah yal na leen yàlla taxaw. ci daraja Seydina Muhammad. allahumma amiin jërëjëf yaa Oustaz ñu ngi euh, ñaan yokk euh, nga yokk ba yëg ko. amiin yaa Sénégal yëpp ni euh, daara ji dañ tàmbali programme yi le 10 septembre. incha allah numéro téléphone bi nga xam ne nag que pour daara ji la diggante inscription ak xale yi ngeen fa nar a yóbbu di 77. 726 23 23 du numéro boo xamee ni pour laaj ay question ci diine la wala euh, wax leneen lu dul la ñuy jàngale ak la ñuy def ca biir daara ja donc numéro daara bi euh, di 77 726 23 23 ñu gërëm ñëpp sant sant ñëpp Amadou Diop daa fee ñu ngi koy ziar bu baax fàttewu ñu itam Minti Moussa Fall euh, moom it adorable ñu ngi koy ziar di nuyu itam Khadija. Euh, soxna wu Habib la Habib bi nekkoon fii ci euh, télévision Futur Média xaw ma ndax mu ngi fi ba léegi euh, ñu ngi koy ziar. bu baax mais Pape Ba ñu ngi koy gërëm. madame Ba waaw Oumou Ndiaye Oumou Ndiaye. moom yaay la dafa def déplacement. ñëw yaayu daara la moom waaw ànd moom yaay la Seyda Fatou Bintou Diop. déet Seyda. Seyda bu njool bi. Seyda. Seyda Absa Absa Fall. non non non du Absa du Absa beneen Seyda bi dama fàtte turam. waay waay Seyda bi def. léegi Seyda Ami Ami Dia. Seyda Ami Dia Seyda Ami Dia. borom këram sunu sunu soppe la. mi ngi noonu Seyda Ami Dia wallaahi ànd ak madame ba déplacé wu ñëw ba Kébémer mm-hmm. ñoom itam fekke inauguration bi te ku ne xam na ni madame ba ci xat-xat lañ ko fekk mm-hmm. jóge màkk waaw jóge màkk mm-hmm. am décès soxna Fama Diouf ñu ngi koy jaale xam naa dinañ fa dem sax jaale ji ko ak ak ak coono yu bare bari alaaj pap xam nga jóge ci loolu ñëw teewal ñu ndax yàlla ak suñu diggante ak ñoom kon ñun ñooñu amuñu seen fay yàlla na leen yàlla fay ci daraje Seydina Muhammad allahumma amin kon mbokk yi mu ngoog gërëm équipe yi sànq ba tey Pape Samba Thiam moo réalisé euh, gërëm tamit euh, taga euh, Kor euh, <laughs> bon Muntaga maa ngi lay gërëm quoi di la ziar Awa Awa Tagali ah komp nga quoi ah <laughs> maa ngi bu baax Pape Maguette Ba euh, Pape Maguette Ba Pape Maguette Diakhaté Euh, ba tey Pape Maguette Ba suma rakk la euh, journaliste mais Pape Maguette euh, Diakhaté càmmiñu fi Diakhaté ñu ngi koy gërëm Pape Mor tamit ñu ngi koy gërëm fàttewuma waa logistique n'est-ce pas ñi nga xamante ne ñooy yóbbu équipe yi xaajo guddi waa service digital bu télévision Futur Média ñu ngi leen di gërëm Pape Jean tey moo leen fi teewal Adja yi ak mag Magui Koulibaly man nag incha allah naa dellu si leen di 11h45.